si wan waaw teel tàng naa waaye nu may def mais nag man war naa dem entraînement de nit du dara ndekete à l'époque cent vingt cinq kilos après l'époque vingt sept kilos après l'époque cest à cent soixante quinze kilos il faut may dawi nag il faut may def entraînement. Hmm? tu a trois de jour avant l'époque à l'époque après l'époque yaa ma war di jàngal tubaab te taloo euh, Vous savez, Kao, euh, je suis bien d'accord que Cheikh Hamidou Kane euh, dans l'aventure ambiguë, je suis pas d'accord dans les euh, dans parce que c'est de la violence totale. Parce qu'il dit, ce jour-là, virgule, retenez bien ce que je dis, euh, ce jour-là, virgule, Thierno l'avait encore battu. Tu vois C'est la violence. Ah, l'aventure ambiguë, tu son auteur. Et là, cependant, Samba Diallo savait son verset. Et moi, j'aurais préféré, dans la première phrase de son livre, qu'il dise Samba Diallo mangeait et Tierno lui amenant des arômes. Ça, ce serait vraiment jovial. Mais là, je ne suis pas d'accord du tout. Eh, Moussa am naa liibar yu bees yu ñëw Moussa Ndiaye. liibar liibar yu bees am naa ko waaw am naa ay Thomas Sankara ay Johnny Walker ñëw nañu ñu ngi nii. yow ñan de kala rek. day ñëw toog sama place ah doo ma sonal dara ah di ma wax Amadou Ndiaye Amadou Ndiaye lan moo tax yow doo jëndal li bar. Euh, je vais te dire lan moo tax doo jëndal li bar Kaaw je vais te dire quelque chose. li la waa kon bi di jëwee dinaa la ko wax tey. waaw xam nga lu tax euh, bëriwoo ay clients. waaw waa kon bi nee nañu yow mënuloo fu nekk tur fa cox fa ça c'est impossible c'est utopique. parce que munoo nekk jaaykatu xar d'un jour au tu te tu te reconvertis en vendeur de livres en informel ça waa koñ bi duñ ko nangu les intellectuels de so koñ euh, ñoom waxtaan nañu. yow lu ma jaay nga nekk sama sama consultant yow lu ma jaay day nekk consultant bi yaa ngi nii encore maa ngi góorgóorlu jaay naa nag jaay naa xar ñëw naa maa ngi jaay livre pour xale yi jàng yow. ya nekk léegi mais tu yi xamoo ci dara déjà xamoo kan moo bind l'aventure ambiguë. man damaa jaay nen damaa jaay nen ngay wax nen te nen ngay jaay man day jaay nen may jaay livre ngay wax ay nen. mais waxoo jaay livre na waxoo ko jaay parce que dont intellectuel parce que bu ma la laajoon tey jii attends je vais attends. waaw attends attends attends attends. Euh, euh, bii Johnny Walker je pense que c'est La Fontaine qui a écrit ça La Fontaine kan moo ko bind les fables. ay fenkat la woon defal nanka man xam naa li may wax bii naa ko bii. li nga ni la là je te dis tout de suite là je t'arrête tout de suite parce que tu as touché à la patrimoine française ça c'est La Fontaine. Fontaine mooy La Fontaine c'est lui qui a écrit les fables. et là tu l'insultes en disant que c'est un menteur. man damaa xiif sax li ngay wax waxuma ko xam nga lan la deel fay laa wax comme bugg nga xam fontaine bugg nga xam fonde bi bugg nga xam leneen deel jënde livre comme Moussa Ndiaye xam nga Moussa Ndiaye am ñëw mu Ndiaye du ñëw parce que c'est un professeur d'université du ñëw day ñëw du ñëw keroog jënd na noonu huit livre barki démb mu paa bi nekk fii jënd na ñaari livre yow day xool doo jëndal livre s'il vous plaît est-ce que mën naa mos tuut ci la fabrique boo ko doo ko raay quand même il ah, faut que ma yëg benn benn bi laa jox raay dinaa yëg benn xool Djibi Seye day tooñ Djibi Seye day ah, tooñ l'indulgence que l'on avait n'avait dara damay féex la la wax dul doo ko l'indulgence que l'on avait dans ce xool putain de ah, merde tu me lâches merde hey gis nga wax leen wax leen mi ngi may tooñ les enfants yéen a ngi ci lii la ok hmm. ku dóor hmm? kenn dooru day na match nul rek ay frère dañuy match nul nii la bu ko dóor sa morom. waaw. oui. moo tey laay def. dem fan. yéen. naan tey ngay tukki. sa xel bi andi ko fi grand place bi xam naa ci la nekk. tu vois les enfants. taluñu dara jeu internet rien du tout kese te xam nga lii jëmul kër. mais tamit dañoo nekk ci vacances nag. monsieur Diouf woon vacances yi jeex na 15 jours moo si des. monsieur Diouf woo naa ko sonn jotuma ko te ins bi je peux dem di ko wëri. monsieur Diouf dégg ah, naa daa takk deuxième femme moo tax pour nga dégg ko léegi problème la. fa déggee loolu. takk na deuxième femme. waaw ah, baax na wuy ma soo paree am na école bi nekk fi wala nga dem seen école. Hmm. loolu ma ko xam te ne dina leen jàngal au moins pour ñu am rattrapage dernier jour yi des. yaa ngi comprendre déjà ils ont des kii histoire la je kii tamit kii mat c'est ça non. concentré déglu sax li may wax. histoire mag. ba est-ce que tu m'entends dina def lu ma la. oui je t'entends je t'entends bon xale yi moom fa dëgg yàlla tamit. tata vraiment njàng moom am na solo trop. xale warul am jot di taxawaalu xale dañ ko war di éduquer di renforcer njàngam. mais tamit nga bàyyi leen may dem grand place ànd ak ñoom su ma eggee abbu livre jox leen maanaam man may may demee fee ñoom ñooy jàng fee seen jàng yàqul dara su ñuy ñibbisi ànd ak ñoom ñëw. ànd ak yow ba grand place pour faire quoi. wéetali seen papa mais loolu yow kay xam nga ñu la wéetali ba léegi ñu toog fii jàng ban livre nga leen jox kon bu boobaa. rattrapation. ba j'en suis grave sur ça ah s'il te plaît su ma demee tey déjà guddi na suba boo xëyee na nga dem lijjanti li ma la wax man façon su ma xëyee dinaa la woo les enfants suba ngeen rappelé ko seen papa de non mais sinon il va pas le faire ah ba. non y' a pas de problème ça je le fais. c'est sûr. y' a pas de problème. ah kañ la ma dafa nee naa ko mais bul yàgg de. waa jugal jàpp si xaw ma waay waay marier un jeune. c'est tellement compliqué. dañ lay def comme xale. jugal nga jóg tëddal nga tëdd. vous entendez votre mère ah. mu wuti leen ku mën a jàngale mu jàngale leen vous êtes d'accord. kuu nee na kuu xool de kuu te sa livre jox ma sama poche teel sa livre. mu ngi def ku. teel sa livre sa livre mu ngi def ku jox ma sama poche. day yàq sama placement su ma placé sama livre rek. jébi day ñëw yàq sama placement livre rek. Eh, Faxuma. waa Badiane maa ngi lay déglu say say ma say ma sa ma xam ti bu ndoy ma sa bato bay tëmb. ah da nga soxla orange mu ne combien. non non je te l'envoie suite y pas de problème non non non non ci loolu non non non non non non non non faaxuma la saa boo soxlaati sëy voilà jibi jibi jibi sa jàng ak gën si Orange Money ak gën a foofu dama bëgg ubbi compte. je te dis quelque chose. moi je suis un agrégé en euh, littérature raté. ça je te le dis tout de suite. rete ok. waaw léegi rete moo fii nii sama orange money bi dama bëgg nga de ubbi moo fi compte orange money mun nga am ubbi. c'est la chose la plus simple au monde. ubbi compte orange money. waaw lu yomb la. ubbi mu xool. <laughs> yow téléchargé moo la woon application bi la dernière fois. ma munu ma ko téléchargé nga. mais duggal lépp loo bëgg mën nga ko fa def ba ubbi sa compte xam nga lu du soxla ci yow. sa photo carte d'identité wala sa photo passeport rien du tout c'est bon carte sama carte d'identité mu ngi ni jóge carte d'identité ni carte d'identité dafa naa foo carte d'identité boy mi foo carte d'identité boy foo carte d'identité ah waay voilà voilà mu ni sama carte man toujours sama carte d'identité day naka sama wet c'est bon waaw dugg nga ci application bi <laughs> dama nga def inscription mhm. boo defee inscription nga daal di suivre toutes les instructions tu vois <laughs> c'est très simple <laughs> ak application Orange Money tu peux tout faire tout solu ngay dem agence boobu wala ngay dem euh, en direction générale ou quelque chose comme ça man pour man di laara nga ndiga yow foora nga c'est bon dugg na léegi am nga compte Orange Money solu ngay dem fenn yor nga application bi c'est bon abalaat fukki dërëm ma jënd café ubbi sama gémmiñ rek. ma abalaat fukki dërëm gis na man damaa sonn ci lii. chaque jour abal ma fukki dërëm ma jënd café ubbi sama biir munuma ci dëkk. bag nga may bëgg dafa amoon sa morom yu bëgg yu bëri yi may bëgg ma bàyyi ko ñëpp ñëw ci yow. nga bëgg ma duggul dunduloo galère nag du ma ko nangu. galère bii may dund comme yow xool naa ba xool xam naa ne munoo ma yar Tafa. dama bëgg nga dem toog sa kër parent ma dem toog sama kër parent moo gën parce que man ma bàyyi ñëpp dugg ci yow te yow munoo ma yor. chaque jour fukki dërëm ubbi bi yow jabar ja nga xam ne munoo ko sax yor pour lan. bul yàqamti bul yàqamti bul dawloo sama yaram bul yàqamti. yow am na luy daw sa yaram yow. bul dawloo sama yaram man duma dem suñu waa kër mukk dafa toog bu ma dem suñu moo ko def. loolu nag foofu la ñuy mujjee da ngay dem toog seen kër ma dem sama kër toog fa jàmm ne ñooy ndax man mënuma dund man dinaa wut solution war demee seen kër ma toppale seen kër seen kër am na sa néegu sa frère bu fa nekkoon te léegi nekkatu fa nga xam pétrole bi que ñu koy séddale xaaral boobu. Abdourahmane aleykum salaam. sawaa <laughs> va. nag va mu. baax noo def. ça va très bien kaaw man de mu nekk nii. Hmm. aw ma jotu toog aw ma jotu waxtaan. baar jàmmale. xam nga madame dafay tukki. waa bàyyi ma xale yi. waaw daaw xale yi am na ko leen doon jàngal euh, la professeur Diouf laa. mais ren woo nañ ko ba sonn mënuñu ko jot. Uh-huh. te xale yi il faut ñu am un bon professeur ak augmenter seen njàng. ah loolu baax na loolu ma bëggoon na nga dimbali ma boo fi xamee benn professeur wala nga gis ko. waaw nga indi ko kër ga. dinaa la laajte ah, dinaa la laajte mu jàppale ci njàngu xale yi. dinaa la laajte voilà c'est ça su ma gisee kuy jàngale foofu rek. ma wax ma wax ko dégg très bien waaw waaw lu ma fayee ko ma fay ko madame mooy fay man fayuma. Ah, eh, waaye bu ñëpp defoon yow. non kër yëpp du xale yëpp président lay nekk. ah mais c'est normal kenn du nekk ministère yëpp président lay nekk. un élève donc on doit renforcer ses études. oui pour après les divertir. waaw <laughs> oh non yow bokkuloo si <laughs> bokkuloo si jëlal Abdourahmane fi laa dee si mi ngi mhm. New Jersey boobu boobu New Jersey la waaw Abdourahmane New Jersey. Oh, man man yii xam naa ko livre xam naa ko. Euh, xam nga ko mais sa waa ji kii sa xarit la xanaa. baax waaw sama xarit la baax mais moom li muy wut li muy wut man loolu lépp ngi ci man. gañ man xam nga dama tuxu si si koñ bi temps yi yàggul. Ah, voilà mu ngi noonu. waaw man professeur laa en psychologie et puis suñu association toutes les professeurs. waaw daanaka maay secrétaire général bi su bind amee maay bind. xam nga comme moment bi école bi des na tuuti pour ñu ubbi. waa mun naa ko defal cours yooyu loolu du problème boo ma mettee rapport ak moom c'est que li ma ëmbul la rek simple et puis tey. mu ne xaaral ma simple nii rek. yow yaay nekk professeur di kii ay boobu vraiment maa ngi Macky Sall ñoo jàngandoo. la ilaha illallah ñoo bokkoon benn classe bokk benn banc. <laughs> bari na ay notes yu moo ko jàppalee. waaw vraiment ak ñeneen ak ñeneen mënu ma toog di lim ñu ma bokkoon classe. jàngi bitim réew ak bii réew mi. léegi mun nga ko defal cours soirée. cours soirée yëpp mun naa ko def mun nga ko defal cours soirée. waaw xoolal jarul taxawal jarul yàggal. Ah. demal nga sol yére nga ñëw ñu def. waaw baax na baax na demal professeur. baax na Tafa la de Tafa. waaw mais mon nom. c'est monsieur Diagne. ah Diagne. voilà muy euh, euh, professeur. Tafa Diagne. waaw kay <laughs> léegi euh, xam naa ni vers si kanam. naa la ñu jàkkoor déedéet nga lay bëgg. demal nga sol sa yére léegi nga ñëw fekk ma fi. ñu dem këram jabar ji day fay de. day dem si avion yi de. ok ok. jabaram day tukki de day am xaalis. Ah. demal ñëw ma xaar la. ma xaar la professeur. ah adduna nit kenn xamu nit moo lëndëm de. xool ko mu sol jalaabe bi nga ne xamul dara ndeke moom ak Macky ñoo bokk benn baam muy Macky moo doon lekk mburoom <laughs> ay adduna lii li ku ma ko waxoon du moo tax nit boo xoolee rek bul siis bàyyi baax am na professeur bu baax naaya wuy ma dajale dajale nga kii yooyu jox ma ko jox ma gilet bi gilet pare-balle bi ak costume bi foo jëm dama am travail dama am liggéey dama am liggéey liggéey bi kay yàlla na ma ci yàlla may ndam rek provisoire la. yii nga waaw merci merci. day def ni madame Faye Sall di def toppatoo sa borom kër. waaw tàng na de. ah mais liggéey bi daf koo laaj. habillement la ñu njëkk a xool ci yow sa habillement. waaw liggéey bi liggéey la am provisoire rek dong la. lan mooy provisoire. provisoire mooy loo xam da nga fay nekk waaye doo ko yàq. Mhm. mais salaire bi baax na. ah am naa ci yaakaar de. ñu toll nii kay bu la neexee mu nga commencé lebal. fii bu ma dugal ci lu ma. natt yi nga bàyyi woon la bokkaat rek. liggéey am na merci nii la Marème nii la Marème Faye Marème Faye Sall nii la président de la république. yaa ngi may nga première dame. du dara yaa jàppe sa bu première dame rek nekk dame. boo jàppee sa bu dernière dame tamit dernière dame ngay. wala deuxième dame ça dépend. waaw Tafa yaa ngi mel ni choupa mi moytu lakk nag ci yoon bi daa tàng de. di di si tënk fi. waaw bonne journée ñoom ñaar lemoon ñoom ñaar lemoon. oh. fii mooy këram. waaw dëgg yàlla moom fii mooy nekkay këram. boo yaay tey professeur Tafa Tafa. je l'ai confiance à toi. je hmm. man je l'ai confiance à toi. pas de problème te xam naa ne boo jàngalee yaay. Hmm. bu dee tamit non y' a pas de problème <laughs> wóolu naa la. y' a pas de problème je gère tout je gère tout je gère je gère voilà quand il entre dans la porte. <laughs> léegi waaw loolu. Idriss Seck doon na ko wax. Ah. ak Mame Boye Diao. Ah. doon ko <laughs> waaw waaw ça va ça va oui ça va bien ça va ça va ça va ça va bien entrain lay entrain ah lay kontaan naa vraiment oui bëri bëri waaw waaw oui assez vous merci merci merci merci jot jot war fa la xam nga lii clean clean amul fi si moom day tànga xam nga lii dafa baax ci askan wi en tant que monsieur le ministre bu la askan wi falee da nga war a duggaat ci biir kër yi di remercier waat nit ñi di xool seen i jafe-jafe lii kontaan naa ci trop monsieur le ministre kontaan naa trop vraiment. kii mooy professeur Tafa professeur la. professeur la dëgëreem sax weesu na foofu yëpp mais uh-huh. yàlla moo ko def professeur uh-huh. kon dëgëreem weesu na ministère. weesu na président weesu na yooyu yëpp ñi ñooy defar ministre yi. ñoom ñoo nekk qui créent les ministres et les cabinet directeur des douches. moom ak Idrissa Seck ak Macky Sall ah ak maam booy jaaw ñu bokkoon benn classe. génération ah. ñoo doon li ma leen di. bokk kon kon yow mën ngaa jàng <laughs> ñooñu moom ku bokk ak ñoom classe mën ngaa jàng. <laughs> Eh, waaw ah vraiment ay woon noonu de ay nu woon noonu de. ah ñoom kii ñu woon. pas tellement mais eh, bon eh, amoon nañu. Abdourahmane moo leen dakkoon jàng nag. <laughs> Abdourahmane ça va mais la maison c'est bien construit. c'est bien construit. waay waay waay waaw je l'ai construit euh, à l'époque bon ay jamono maa ngi woon maa ngi doon def marchand ambulant à Gabon à. à Tchad. Tchad yàgg naa fa def naa fa treize ans di jaay xaal ak màdd ci laa construire kër gi mm-hmm. moo tax liggéey jarul xep mm-hmm. lu waay jàpp góorgóorlu ci del rek góorgóorlu rek del rek français ah. bi cent pour cent olof bi moom <laughs> moom ah, ah, <laughs> ah, bi sama sama la. sama xarit la. waaw mooy woy boobu mooy jokkal maajo jokkal leen. jokkal bul seet si coosaan waay bul seet baax lu tëddeen nañu wàññeeku ñu ñëw si li tax mu professeur ñëw sabu professeur moom dafa war a dafa war a dem Canada la wax mm-hmm. am bu ay cours yu mu joxe foofu Canada waaw nga bi nga ñëwee sama place sax doon naa la ko wax wax dëgg yàlla moo tax bi nga ma waxee ne ma sama doom yi ma ne ko wax dëgg yàlla baax sama nit la mm-hmm. te ay doomam ñii dañoo nekk xale yu bëgg lu ñuy def madame bi nag waxuma ko madame bi moom faray si rek lay wax mu mm. bëggoon nag nga jàppale ko baax man sama jabar Toulouse la juddoo <laughs> Toulouse eh, il est à Toulouse Toulousain laa kon vous que ah ma ne Toulouse la wax Toulousains waay waay c'est marié avec les Toulousains c'est bien dañ koy leeral mooy sama jabar dafa xonk ko Toulouse ah, ah, ah. foofu lay jóge <laughs> <laughs> c'est la même eh, cas bon oh, jusqu'à là mais pour prendre pour augmenter la français des enfants deux enfants c'est combien par mois <laughs> bon je professeur bon enseignement supérieur. mais nag je suis débrouillard. ah mais je sais. ah oui mais eh, eh, huit vous êtes. na ma regarde comme les canadiens. Eh, <laughs> eh, bon le plus important les études euh, c'est pas facile euh, puisque c'est question de téléchargement d'idées et transfert la idée excusez-moi excusez-moi est-ce que doo simi daal yi pour nga mën a wax est-ce que téyewul <laughs> ça va ça va il y a des dama dafa seer waaw non non il garde quelque chose ah. il y a des garde non non <laughs> merci euh, bon xam nga daal daal di seere ak wax ju naqari mooy. ah non c' est bon nga génn ko. c' est bon c' est bon xanaa peut-être dominer un peu. voilà surtout nga pendre sa bopp merci voilà. <laughs> bon la étude c' est pas facile parce que je télécharge mes idées je transfère les enfants <laughs> entre mes idées ak les transferts <laughs> chaque transfert il y a des moyens maximum. bon mais tamit euh, le plus important. mooy les enfants c'est là l'avenir des enfants. l'avenir surtout demee on va il faut gérer les avenirs. Ah des ah enfants ah les enfants. Mhm. que quand le vieillard mourir. Mhm. la brutelle. c'est la c'est la pépinière c'est <laughs> de rester nos idées seulement jusqu'à mourir après les enfants va-t-il je vais diminuer chaque. <laughs> fin du mois maximum maximum donnez-moi 75 000. c'est des actes symboles parce que le savoir y a pas de prix. vraiment parewul 75 000 daal kii. looy wax des ma may ko ko. waaw waaw. ndax sama xarit la. pour deux non 75 juste. global toujours c'est pour les deux. ou bien pour. benn pour les deux pour les deux. ah ñoom ñaar. waaw ah, ah merci beaucoup. c'est symbole c'est symbole. oh là là merci waay jërëjëf waay. <laughs> dama tiitoon sax pour man xale bu nekk soixante mille. mais eh, ah, ah, mm, ah mais qui télécharge le le le. ma idée. était de transfert les enfants. mais c'est Google c'est ton non bon je travaille avec Google. ah oui. c'est une application. parce que quand à chaque fois il y a des idées qui <laughs> montent dans la canne. y a pas de problème donc monsieur Diagne tu peux commencer le soir. Mhm. Euh, il faut me donner l'avance. et préparer les enfants les tableaux. Mhm. les ardoises. et puis quand les enfants écrivent il faut manger un petit cacahuète. ñama ñama tos. ñamantu ñamantu la table c'est ça qu'on dit ñama ñama. voilà c'est encouragement. ah, ah oui Orange Money. Mhm. pour ton ton argent mhm. mhm. la ay eh, numéro les frais c'est jusqu'à le 24 octobre 2021. ça c'est les transferts. daabul formidable c'est daabul c'est <laughs> dara dara merci kon monsieur Ndiaye mhm. Ndiaye voilà li tax ma teg fi lii dama bëgg renforcer seen xam-xam ci wàllum njàng foomi laa bëgg ngeen wàññi ko yokk seen capacité yokk seen xam-xam amélioration yéen a may dégg bu ko defee bu ngeen amee ay not yu baax bu déwénee moom man leen yóbbu na ku leen des vacances Gambie Guinée Burkina Faso Sierra Leone ah comme seeni moroom Maintenant, vous avez une professeure qui s'appelle Monsieur Diagne. Un professeur. Un professeur. <laughs> D'accord, bataille. Un professeur qui s'appelle Monsieur Diagne. Bon, elle va venir ce soir. Il. va venir ce soir pour vous donner des cours. Il faut le respecter. Hein? Surtout éviter d'avoir des compagnies comme euh, Vlune. Papa Yvonne. Yvonne, c'est un ngeen di moytu di ànd ay àndandoo góorgóorlu leen seen njàng. ok vous êtes content ce que je dis. si vous êtes content souriant. donc vous êtes content. seen maître il va venir ce soir. ok. allez. va sang va la laver vous tous. allez vous laver. allez rapidement. surtout nag n'oubliez pas votre chanson Perrozaco Perrozaco dormez-vous pampanamalala tarararararana sanana vous avez oublié beaucoup de phrases dans cette chanson <laughs> oh là là là Mon frère Mon frère kaw bàyyi di seetaan film horreur baaxul. dama doon dama ma génte bukki bii di ma dakka si àll bi dakka ma dakka ma dakka ma ba xuusi ma rek sama caay bi wad rek mu nar a am lu mu kof man rek nga ñëw alhamdulilah loolu moo ma tiital ma yóbbu. ayla c'est bon euh, je peux je peux bi nag ngir yàlla fi sabilillahi nag yow doo ñëw mukk boo wax ma kaalis nani wetaakam ni kaalis nani toujours ñande kala rek mu liir. soleil demal nga xool baaba baaba si bu nekk fële ne day jaay soleil est-ce que sañ nga lire soleil am. Kaaw je vais te dire quelque chose. Hmm. man je sais que tu ne sais pas lire. ma mais je t'aide à voyager. Ouais. Si je lis et qu'on qu'on qu'on lise ensemble, on va voyager ensemble. Le livre, le, le livre te permet de voyager, d'aller dans d'autres horizons. Ça, il faut que tu le saches. Par exemple, je vais te donner un exemple. Écoute-moi, s'il te Quand, je parle. Hein. Tu wàññi nga wax olof tout. OK, déglu ma ma wax Là, euh, c'est le livre euh, s'appelle L'amour sauvage. L'amour sauvage. Ah, ah, quand je dis euh, l'amour sauvage, je ne parle pas d'affaires de pervers. non je parle d'amour le, le pur amour mbëggeel dëggantaan monsieur bu dof bii nee ñu indi xool ko lu mu sol muy mel ni kuy dem mariage kii mel ni kuy dem enterrement. bonjour les jumeaux. bonjour monsieur bonjour. bonjour les jumeaux. bonjour monsieur Diagne. kenn du wax jumeaux jumelle. depuis quand. toujours. ah bon bon je suis humble hein je suis humble cours mais la cour. vous êtes droit de corriger chez moi tamit droit de corriger ah c'est la source de corriger ah c'est pas source mais le plus important c'est savoir ah. je suis un professeur je suis didacteur c'est monsieur Diagne je fais ma cours ici au Sénégal. formation comédie nga doon def. non bon c'est processus processus euh, mais la présidente d'abord. je vais vous expliquer ma vie c'est très important pour connaître les professeurs la vie de les professeurs je commence mon école à primaire à Fatick école Valdiodio bon moi et président même classe même table de banc même carion partage des feuilles sur des notes parce que la présidence c'est pas <laughs> très fort trop noonu mais c'est pas important après je continue je termine ici à Sénégal la Sénégal est poussé maman il peut pas il faut voilà compétir sur Afrique je suis pas ça beaucoup jamais parce que la période des Afriques je n'ai pas comprendre ça trop trop mais jusqu'à je allais à la colonisation des Afriques sur des écoles sur des sujets tabous mais ce sujet compliqué euh, je sors sur ma promotion premier ça ça monsieur est-ce que doo wax olof comprendre nañu sa français bi écoute très bien quand moi je suis sorti sur la servant de Mali Guinée sur une compétition c'est moi qui sors dans ma promotion première c'est ça l'Afrique qui cotise c'est l'Afrique qui paye ma cour jusqu'à Europe Italie France tu connais les écoles de Sorbonne euh, l'ULU de José Lisée c'est une grande école un jour vous êtes là pour régler votre cours. ok on commence sur la que la date très important quand tu es rêvé tu regardes pas la des programmes il faut connaître le 12 wala c'est le 14 wala c'est le pour suivre des contrats des résultats des ainsi de suite projets ainsi de suite faut d'abord comprendre la date la date nag il n'est pas posée il n'est pas posée des Aujourd'hui, c'est le 3 octobre. L'octobre, c'est très important. monsieur bi de tey la nii. c'est ma date. parce que j'ai écrit comme il faut savoir regarder hein sinon je passe. 3 octobre octobre c'est pas loin hein. octobre. c'est bon hein après la 3 c'est un jour très important parce que c'est la grande professeure qui est venue aujourd'hui d'abord la lettre alphabet monsieur kenn wax alphabet on dit quoi alphabet merci sur les alphabets euh, il commence par A A minuscule faut déconner laaj d'écriture. ah monsieur ah du nii de. c'est qu'il y a beaucoup d'hasard hein. l'Afrique. voilà hein. Mm. je suis trouvé. merci. l'alphabet c'est 27 lettres. monsieur 27. alphabet de 26 lettres. 20 consonnes ak 6 voyelles. tu, tu sais, quand j'étais à Paris, j'avais un, une femme qui s'appelait Jeannette, elle m'aimait. Jeannette. Et moi, je travaillais euh, euh, dans, euh, dans une poissonnerie, et, mais elle, malgré euh, euh, ma, ma senteur puante, Hein? Elle, elle, elle, elle, est euh, vraiment, elle m'aimait euh, mm-hmm. parce que c'était l'amour, elle m'aimait vraiment. Mais, par contre, fan la la laaj laaj. daf ma trop. waaw ah, mooy bëgg. xam nga tubaab bu ne la bëgg naa la. mooy bëgg na la. Ah. tubaab bu la xasee ba bëgg. waaw ngeen marié wu. waaw le pire et pour le meilleur. waaw boo doon ba ba ngay dee du la bàyyi. oh gor la loolu gor la. mais par contre ici en Afrique fii laa déggee mbaxaal mbaxaan. photocopie ay cœur man c'était la première fois que je le vois ici. ah fa faxé ay cœur ils te disent que original bi je le garde pour man lu mu koy doyee. day nax ma lekk sa kaari loolu lay tuddee mbaraan ngay mbaraan ngay wax mbaraan am naa benn gel bu nekk fii ribi nii. te mu am te wala am. Euh, ginnaaw ginnaaw gu généreux. voilà. te am euh, en succès. xoolal day ñëw fii. xëy na ma man tamit day lekk sama xaalis moomu man dama doon indi ay ay deux cent quatre cinq libar léegi xoolal libar yi mooy indi matul sax dix-huit libar xoolal day sam ngaay ndeke noobu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z C'est si c'est fini. Ok C'est vous divisez, Bon. Rangez vos bagages. Jusqu'à demain. Hein? Dis-moi, bonne route. route. Merci. Allez. laaj kii moo neex kii kay kii ne météo bi la kaa nax ana gilet ana payet moo si jaaxal papa daal buñ ko wax dara xaar ba professeur bi ñëw di jàngale comme ça ñu mën a réetaan kii kay du professeur comédien bu mag la. man man man na ma bi may jógee jógee voyage. non si. mu xool ma mun ma yow da nga am carence kay man nampal la man j'avais rien compris man ni non nampal pourquoi nampal man a mon âge pourquoi mu bëgg ma nampal elle est venue il m'a il m'a dans sa chambre elle a commencé elle a commencé à me donner ses seins et je me suis bon je vais me soulager mais après quelque temps. il a day na day nampal mais bien sûr elle a fait ça non mais je j' pas un non non non non loin de là mais il m'a dit que euh, dama am carence de vitamine et c' vrai pour nga am fii meew bu bio c' est c' est très difficile fii meew yëpp dañ la rax chimique c' trop de alors elle m'a dit que j'ai dit les bio bu amul benn effet secondaire je lui ai mais tiens ça fait l'occasion parce que meew nag laa doon wut bu ma gisee meew nit dama koy jël. Eh. tu vois <laughs> donc je vais lire cette euh, je vais aller euh, lire cette. Euh, cet amour sauvage ji bi ah ji bi. bisimilah itam nag bàyyil amul amul sax yaagal fii nga jàngal ma fii moom a gëneel nga yóbbu ko non non il faut que j'aille à la maison me concentrer un peu histoire de me voyager seul et ensuite quand je reviendrai je vais te raconter. hey demal ah, doy ça mimi góor a kat góor. le mariage des des insectes aussi foog ma jóg gis nga jëm. day jaay ma doole. oh ko kangaru wala dafa bugg a dee wala dafa bugg a dem mbaaw wala lu ko dal yore février soo ari doxee na rek weexam français bi. man daal tey aw ma envie jàng dara tey man sax aw ma envie jàng. mais xaaral tey bu mu ñëw buñ ko may dara gis nga suñ ko mayul dara na jël bagage am mu dem mu doon ni dawalkatu fas yi. Ça va c'est, c'est. Ça va bien ça va. bien merci. Kaaw euh, je suis venu prendre un autre livre s'il vous plaît. wala oui waxuma li var waxuma li var waaye xaar ma fii mooy daw dem. fay sama facture ndox bi su ma ko deful day coupé ma. day coupé mais mais demoo fenn wuy ma déglu ma toogal toogal ma wax la. toogal ka toogal ma wax la. mbaara ko toogal mbaara ko jàmm ka je te dis quelque chose. waaw très simple. waaw. kaw xanaa amoo application orange money. yow yaa ma ko jógalal keroog. waaw mais ak sa application orange money soxla ngay dem ci caisse wala agence wala direction générale soxla ngay bouger ak sa application orange money tu peux tout faire. fay sa facture ndox sa facture courant fay ci sax ay marchandises et tout. yéen day nag ma rek. jox ma sa portable moom la jox ma sa portable. sa orange moom am na xaalis. waaw am na xaalis. jox ma <laughs> yéen day nag ma rek may fay fii fa facture du ma posé. andil alma. ndeke kii ndeke. numéro compteur moo nekk nii. mooy nekk noonu waaw c'est bon. waaw mooy nekk noonu. c'est bon waaw. ok lii lan la. waaw facture paye waaw <laughs> paye fay nga ko avec ça nga bëgg fi bouger léegi yaxanal nga sa poche doo bouger doo xam doo pare am nga sa temps te du yàgg nii toog kon say activité lépp ak application Orange Money bi doo solo bonjour monsieur Diagne. la. monsieur dañ leen nuyu. qu'est-ce qui passe. dañ leen ah vous êtes engagé de. ah. assis calme-toi. hey. calme-toi dégg ngeen. ne me fais pas peur doucement. Hum? salutation 1 plus 1 mieux jour mmh. ok pas de sanction ok oui. l'octobre ma mère l'Afrique l'octobre point d'interrogation aujourd'hui on fait la cour de renforcement renforcement problème de quoi. problème mu mat ak observation. ku leen wax loolu. suñu pap wax nañ ko ko mu ne ñu ba nga ñëw nga expliqué ñu ko. seen pap seen pap mais mu war a woo bu fekkee ni bëgg na yéen a kuur yi parce que timide. yéeg say ñëw rek mat octobre kii nii ñun la mat indi ay problème génnaguma octobre sax ngay bëgg mat noonu tamit mat dañ koy préparer on se prépare la mat. parce que loolu si jar préparer. non neexul ba neexul jibi tay lay may liibar ba pare Sénégal nag duñu war a xam Sénégal <laughs> orange li muy liggéey de man sama mbokk yi naka si àll bii lay wax. ñoom Samba tergaal yi nekk fuuri yooyu yëpp day yore xaalis def ko si gabagab bi dugale ko foofu yëpp mënoon nañ ko dugal si loolu waxul dugale ko sa application Orange Money waaw et c'est fini loo bugg a def def c'est bon <laughs> ah, je pense que les mille je vais prendre si taabal bii dara fi sabilillaay del teg si taabal bii dara waaw del si tabal bi dara man sama xarit. bu ma wàññee ko dinaa am lu ma wax dégg nga. bonne nuit zéro. ok bonne nuit. mi waani bonne nuit mi mi waani bonne nuit bonne nuit zéro laa la wax alhamdulilah man comme fayal na ma facture moo ne fii rek sant yàlla <laughs> orange moo nag dafa efficace <laughs> maa ngi xalaat ko ma toogal jibi ndeke dafa dof ko non français bu dof la kono bopp bi baax na il faut ma aviser il faut ma aviser ils m'ont fait un appel dis-moi que je prépare mes petits enfants à la cour de temps ou la cour de ça mais c'est pas vous qui décidez votre cours ok cinq astafurlah quatre. monsieur jeudi du est abrégé ah. bon aujourd'hui c'est le cours cours euh, renforcement. qu'est-ce que vous voulez. jumeau qu'est-ce que vous voulez faire. point c'est pas point c'est rond voilà un il faut apprécier la point ok. je suis abrégé, mais tu Mais c'est bon. Euh, le plus important aujourd'hui, c'est le cours de renforcement. Hein? ñun suñu papa daf ñu ne ñu wax la nga dimbali ñu ci mat ak observation waxuñu ay renforcement. ranger mon bagage ranger mon bagage français la table français la table di papa je suis malade. dënn waaye bi daal ñëw kër gi wala mu jàngale nekk fii di làkk français bi nga kenn xamul. sax te ñëw rek dinañu dégg. moom fu mu foree kii de. mooy tige. très eh, te kenn yow. Ah, ndax damay gis ne nekk université ngay jàng te te ñëpp xam na ni koñ bi bokk nga ci les meilleurs élèves waaw gars yi nee na ay d'office booy dégg na tige d'office léegi nag tige <laughs> ah, yi classe dafa bari classe yi bari élèves yi danoo bari buñ leen seetaanee duñu mokkal. lii ma am benn d'une part code part bu ma ci jox ma war leen jàngal jamono ji renforcer ma capacité yooyu bon xam naa lu nga xam sax mais yow tamit yow yaa ma mën a renforcer moo bëgg nga jàppale waat ci côté technique bu jàngale bi incarnation jàngale bi point d'interrogation virgule point laissez-passer waaw casier judiciaire yi essai naissance yi. lépp loo xam ne gis nga ni boo ma ci jàppalee ba nga xam ne la may jàngale foofu waa kër gi dina gën a am confiance ci man élèves yi dina gën a xam tige lu ma am dinaa la jox jàppale chaque semaine man nii ñooñu dama leen di jàngale yow noonu nga may jàngale ñee weer ba weer lañ may fay yow semaine ba semaine ma fay doo seet morom tey tiyee bon élève nga lu hmm. dégg quoi yenn saa da ngay da xamante dafa dafa fu may yóbbu sëy. osé rek. xam nga dëgër fit weesuwut nga ne da ngay jàngale. te xam naa ne ay fii saako baax du dëgg. waaw ii booy ay ay chronique kat ak lépp. yow um, umpale woon yi bu perdu sax xamoo ko ci français ci wolof. pain perdu waaw. pain perdu kat mooy pain ku war a ray. mooy mburu faas teel foofu sa loxo mu ma. grave sax cuur grave yow non non grave jëlal booy grave jox ma seen programme. nga ñëw ma teg la ci code nga jàngal leen mais nag umpale woo fee nu mu demee xam nga ni université moom saa yi dund dund dund bu métti la jàng da nga koy ñàkkante di xëy di lekk lu kenn xamut teg ci di daqante ay policiers de gauche à droite wuy ma jëlal booy nga leen ma leen di jox ay cours ma lay jox ay code nga leen teg ci code quatre-vingt-dix pour cent yi pour man la dix pour cent yi pour yow la fay bi ñaata nga wax du dañ lay fay ñëw. waaw man ma lay jàngal nga leen di jàng. waaw 90 pour cent yi maa ko. mooy ñaata kat bu ci waxal na man rek ci xaalis. bu leer la buñ la fayee 100000 5000 yaa ko man na jàngalee tontu xam nga risque yi ci nekk. man dama am problème am ay jafe-jafe moo tax mu dugg ci lii. mais yow xam nga ci lii sax parent mu mun ma fay 100000 lan may fas as néew la man daal mun naa chaque semaine ma jox la 10 ndax 30 000 leen may fay. semaine ma jox la dix mille bon beneen semaine ma la jox day jeex sax de. déedéet du loolu day kii. day xam nu ñuy def bàyyi ma jox la douze mille. ñun ko séddu. douze mille douze mille. waaw gis nga ni nga bëggee sañse bëgg teg bëgg wax ak xale yi. la rey Cheikh man danga may yow yaa ma wax muy waxi ji rek yow Cheikh defoo dara danga may wax ma wax léegi rek jeex na de man kon kër gi nu ma fiy joxe. léegi xool lu ñu la jox jox ma fee grave grave. waaw ah, baax na dégg nga ñëw ma la jox ay MB ay M devant MBP. xool ay camps de verbes se suivent le second se met à bu kawe la kenn mënu ko xam quoi ma ñu simple rek ko dinaa ko allégé léegi grave man daal xam nga laa gën a soxla moment bi ndax booy hmm. euh, classe sem 2 dañuy def bu jógee sem 2 je pense insha allah am naa yaakaar ñoom dina ñooy dina ay clochard xam na dara jàng na naturellement léegi xam naa dañuy passé réussite arrosage bi kade yi ñëw lu ma jox ma jox la enveloppe soutien famille seen bàjjen yi parrainage ñoom dañ leen parrainé xale yooyu yëpp leen parrainé dem naa ba si kër gi ay euh, taa la laa laa la lii lii la non non yooyu rek simplicité su fekkee kale naa ma vocal wala message la nga tontu ma ni mu nii ak nii teg ma ci rek yow da nga may bëmx rek compliqué wul. grave dinaa teg ci ko amul nañu déggante après. dañ dégg dara waaw mais moo dugg si amul benn ñu ne ngeen compliqué waa eh, université. Eh, demal nga laaj ko seen papa ñoom sax duñ ko xam. Hmm. boo bëggee sama jox lay cours anglais nga fàtte. bàyyi fi mu wut ay élèves anglais ah, naa si mooy cours de classe fu mu jigéen. bon xanaa sélectionné rek. kese nga nuyu waaw bon damay damay démarrer nii daal lu ma am après bu yoo jëlee yokk gene ba ma am école tafa yooyu yëpp mën na am. dëgg la waaw Moussa nag laa fay tudd de. Diagne. Garaaw. ñu déggante am waaw ñu déggoo waaw. ok ba. si. umu bee amu tey umu umu bee amu man umu bee amu tey loolu waxu la am. loolu bandi la ay mbiram boo jëlul responsabilité rek. dina la dugal ci ñàng moo xam dangay ngay tiit sax yow personnellement ñaar. devait, devait être une ville lumière Kaaw une ville lumière de dëkk bi dafa wax di tàkk di nay am ay fleurs partout bu ko defee euh, boo yeewoo suba euh, xeetu parfum bi jaxasoo et les abeilles les papillons et tout ça ça fait ça fait plaisir à voir loolay njëriñu mer mais du bale rek tuuri loolu non non il faut que rebooru koñ bi ñu def ay cocotier comme yàlla dogal na ci littoral bi la dëkk. ensuite pont bi ñu def ci ay jeux de lumière. di xoolal liibar bi ñu tudd bu tudd mayonnaise liibar bi mayonnaise la tudd. je te parle je te parle euh, euh, d'infrastructure toi tu me parles de de, de d'alimentation de mayonnaise. Hey. Eh. ça veut dire quoi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ah sama sëriñ. ah mais ku baax ça va. ça va bien baax naka ngeen def nag. ça va alhamdulilah. ça va bien. ça va. waaw waay naka kii kay bur yooyu mbaa mi ngi dox. non non non ah, c'est des livres livres la livres mais mais je disais donc à Kaw que euh, kon bi dafa euh, ville bi. waaw dafa wax a nekk une ville lumière. Hmm. fépp di leer. waaw waaw surtout pont bi comme nous nous habitons euh, dans le littoral. donc lumière bi dafa wax di refléter wu ci kaw ndox mi. kon bi di am ay fleurs. Mhm. oui man j'ai pensé en en venant ici en quittant euh, la France je me suis dit que cette même chose. pourrait avoir ici c'est possible. oui oui bu ma joxee maire dëkk bi laa wax. pour kat pour man <laughs> bu ma defee maire. ji bi dama koy def sans problème. dama bëgg a nekk ak candidat comme Habib Niang. <laughs> non pas candidat <laughs> non non c'est pas ça. waaye doon ñun bu ñu sonal mënoo wax a wax a wax a wax a wax ba doon fi candidat wala maire. ah. kalaas bu ko sax xalaat. bu ko sax mais pourquoi. mais du xam-xam bi. yow du casting bi yow yoroo forme mère sax. ah day jib yow day wax la yow. un maire un maire un maire day am sax biir tuuti biir bi day génn tuuti un maire. ah au moins. waaw ah, au moins ñu am yaakaar ne kii patron la. waaw waaw waaw waaw waaye maire boo xam ne lépp domino la. waaw maa ngi doog a xam la moo tax ngor ba daan wax bul fréquenter ci foofu. ah oui. parce que les lions ne fréquentent pas les antilopes. ah bon. waaw ouais. moi je suis eh, un lion donc je pars. Eh. et là vous vous êtes des antilopes. léegi man dama lay la léegi dama lay la enveloppe. ji no no non parce que yéen le problème en est que man interprète bi ma doon <laughs> loolu ngeen ma iñaane li ngeen may mooy man mën naa liir je peux écrire et lire. quatre points cardinaux laay laaj la quatre points cardinaux. quatre points cardinaux dégg affaire yu basique ah. yooyu ah. ah. <laughs> bu nekk léegi tur bu nekk léegi trois sacs de service. ay cadre point carte yi loolu laay lay góor bés bu ko falee meer diggam lay njëkk a faj waaw cadre point carte yi moom mënul wax sax cadre point carte yi ah mooy Habib Niang day wax cadre point carte yi ah Habib Niang même bu dul sax mais kii kii ku ko def meer tamit bureau dina dina naqaree li jënd bureau ah. waaw ndax euh, un maire da nga war a yor taayu maire gis nga boo gisee ministre nga xam ne kii ministre la boo gisee député nga xam ne kii député la kii da nga xool sa xel dem ci cocotier wala kénkayri ay tiwo sa xel ci yooyu la nga nekk maire sax moom moo gënal moom bu doon ko léegi yow nga nekk maire <laughs> moo gënal moom mu nekk maire eh, eh. waa waaw ba campagne commencé <laughs> yi nga taxaw ku ngeen àndal waa ju baax ku ngeen àndal waa ju baax <laughs> eh. ndaw maire bu tuuti ndaw maire bu ndaw Nice. waaye yow moo tax boo génn. ma ne temps yi moom mooy loolu surtout xam nga rek dafa affaire am demeetul noonu daal moo tax je préfère may toog ci biir kër gi di gérer kër gi daal. mais yow nag yaa ko mën a dimbali instant bii nga xamante ne dëkk bi business bi mi ngi dox bay bëgg a dee. ah yow daal man maa dem Chine. gis fa ay saag xam nga ñu ngi ci rentrée des classes. Mhm. soo jëndee saag ak kayit bi day. day dox si si léegi man xamante ne yore boutique mën maa jaay saag en gros en plus moins cher. ah mu jaay ma si lu bëri. ma ñëw fii instant maa koy commencé di ko jaay normal. yow loolu intéressant na de. dafa intéressant te danga ciy am sa xaalis xam góor ñi tamit defalatuñu kenn. moo tax sax nag moom surtout. temps yi affaire am demeetul noonu déjà sama bopp bi dafa ëbb sama vacances yi ci kër gi nan laa leen def suñu naree nit moo ma yi daal lenn laa gis comme solution mhm. nga jël saa gi ma jox la si quelque nga liggéey ah. mais bien sûr nga sama xarit nga waaw loolu ay doomu ah, mais da koy jël loolu sax dama koy def xëy mhm. sama nit nga mënumaa toog fii ngay am situation ma lay seetaan te ma mun laa dimbali ndax su ma nekkoon situation bi da ngay dimbali da ngay jël saa nga jaay dugg si ñi nga xam dugg ko sa statut sa Instagram sa snap vente en ligne dafay dox nga jaay soo si paree nga jël sa commission nga joxoo ma li ma jëndee saag comme genre saag bi buy jar huit mille nga ko quinze mille day jar day jël noonu lay def sax nag nga xam ne xale yi suñuy ñibbi boobaa dinaa am lu ma leen mën a préparer au moins comme tafa affaire am demeetul noonu yaa ngi leen war a jox saal jëndal leen yére loolu loolu yëpp billaahi defal li ma la wax non t'inquiète noonu lay def sax insha allah merci beaucoup xam naa kon après dinaa ñëw xool marchandise yi dégg nga ok y'a pas souci waaw ah, d'accord amul problème dinaa merci waay awa dina ma arranger man sama bopp bay nga ubbi jamono ji ba nga xam ne allo dégg ma wax ca sax ma Samba Kane non mais on m'a dit que tu es en Italie non non j'avais un problème un petit problème euh, d'argent oui d'argent comme toujours hein comme toujours oui oui oui oui non non non non du problème mu famille du problème problème d'argent la voilà non man amu a ah bon mën nga yónnee Western Union via Orange Money a ah, da ngay yónn ah, da ngay may yónnee Western Union bi mais ci sama Orange Money loolu mën na nekk cool c'est cool ça ah c'est bien. donc désormais booy yónnee nit ki West sax Union nga ko dugal directement ci Orange Money merci beaucoup Massamba jërëjëf maa ngi suma Orange Money day marché très bien même merci. war nga sant ma de. non tu es extraordinaire. li ma la ñaanal fii. non non non vous êtes extraordinaire. lu ma la xam nga yàgg nan may xamal sànq maa ngi ñëw nan la naan la ñaanal ma parce que dama soxla xaalis. mais franchement gis naa ni pël yi. Hmm. ku nu ñaanal mu nan ah man dama gis nii ma toog nii rek de. <laughs> ku ne yow di nga jot sa weexal <laughs> di nga jot sa message bi ñëw na. ñëw na. xoolal nenan ma. waaw yónnee nan la xaalis ci Western Union. waaw mi ngi ci sa orange mu ne gis nga message bi. bi boobu dafa doon. <laughs> tubaab xaaral mais nag pour nga gis xaalis bi. waaw da ngay def jees. 144 jees 23 jees. boo ko defee di nga gis numéro un international numéro deux sous région. nga daal di laal un. <laughs> war si day day rayal. international. <laughs> xaalis baa ngi nii yaa ngi koy gis de xaaral ma yónnee la sa weexal. tey jox mu weexal. <laughs> naa la dix mille xoolal. bu dee déglu mooy nii liggéey bi neexul ba neexul kon yow. ah daw xeexee léegi balaa muy xam xam nga tey lan laay xeexee. gannaaw sauté à laay ñu daal ci lem. <laughs> jiw jëlal liibar boobu ma jox la tey am nga njëriñ. Orange Money dafa garaaw de moom nag li muy toog fi yëpp kono mi ngi sama liibar yi ci zéro kono mi ngi may jàngal Orange moom mi ngi may adduna de. sa doom buy jàng xale yi danga koy bëgg jàng mu bëgg jàng di jàng xule yi ay croquettes yoo xam ne kenn xamul lii paañ nañ ko def xam ñu jàng ñëw di jàngale si man ndékkiwuma sax fekk xale yoo xam ne am xam-xam yaayu papa yi dañ leen bëgg waaw maa côté bi naa ñaari jumeaux la moom dañ ko calculer jël fi benn jëlaat fi benn. mes fils préférés choisissez ici. c'est bon. vous êtes bien réveillé. t'as vu nag. quand tu es venu chez en période de cours. faut essayer de comprendre la situation. Hein? Quand je dis debout, je dis monsieur Gagne, je m'en lève. Je fais assis. Hein? Une, deux, trois, debout les humains. Monsieur Gagne, je me lève. Assis les humains. Monsieur Gagne, je assis. Croisez les bras. Dépassez de les bras. Qui écrivent la date d'aujourd'hui Ça veut pas écriture. Monsieur dit, c'est pas la date. C'est quoi C'est ressemble comme un date. li problème mathématique la sànq si moom nañ doon waneen yow nañ doon xaar pour nga ñëw woon ñu ko. su ma weesoo foofu mu changé parce que ma gis bu baax. voilà kon c'est la mathématique. que vous voulez dans la mathématique ça va. ñoo bëgg nga nga defar ñu opération bi mun a xam kii bi résultat bi lan la. opération bi résultat bi c'est quel résultat bon ça aussi ci entre c'est deux trois virgule zéro c'est assemblement c'est quoi. du 23 fois 0. ah oui oui j'ai oublié j'ai oublié. Ouvrez les cahiers. J'arrive. vingt-trois maa ngi nii di la vocal wuy ma man la tabaat dimbali ma ngir yàlla vingt-trois fois zéro laa bëgg a xam résultat yi xale yi dañ ma piégé ñu ngi nii toog jàkkaarloo bi di may di dimbali ma ngir yàlla vocal ma ko léegi nag Tidiane dimbali ma tàmm nga ko la vocal nga toog nekk sa bopp ba mu neex na ma ko yéexal lii 23 fois 0 rek dimbali ma rek. booy 23 fois 0 égale 0 yow tamit bu ma gàcceel. 0 ah nekkal nit. 0 23 moins 0 23 2023. sikki li nga see yokk gis bi loolu sa waay ni ma zéro la mooy yokkaat si beneen dix hmm? ah Suivez. Concentrez-vous. Ce qui se passe. Concentrez. Oh. Rien les hésitants, c'est pas de. Hmm. c'est bon tirez. waaw. Mmh, monsieur égal cent. monsieur da ngaa juum égal mais man zéro laa def. monsieur lii de cent la yéen laa doon testé seen savoir mais toujours c' est zéro parce que zéro laa ñu ko def devant toi témoin la témoin la tamit quand même bu bu bu leen faru ñëwoon déglu ma xeex. c' est zéro sans sa tirer toujours pour un élève il faut essayer le savoir de cet élève est-ce qu'il est en concentration ou c'est pas concentré c'est ça monsieur foo gis mille fois zéro égale zéro égal mille fois zéro égale zéro ci sax yow day mel la niveau Papa bi muy incha allah jërëjëf c'est mille bonsoir Kaw ça va ça euh, la ab tey ah pour tey rek benn livre s'il vous jibi jibi waa toogal jor jor jibi toogal mu am lu ma la laajal ay Sénégal Sénégal moo ne hmm. liibar bi liibar bi gel bi wax xale bu jigéen bu ñëw fi soxla liibar bi ñuy waxtaan hmm. mu ne dafa soxla liibar bi hmm. mu ne liibar bi mu ngi tudd mil dans la mille de de la nuit mille de la nuit mille et une nuit <laughs> mille de la nuit voilà mu ne loolu ñuy waxtaan waxaale mu jékki-jékki rek jël téléphone am allo. oui oui ça va dugalal ma ko France di mu nekk am ku nekk France mu ne day doose ma man ku nekk France yónnee ko Orange Money mu jot ko Orange Money nekk Sénégal mbii moom oh ma doon affaire ah, nii <laughs> Orange Money nekk Sénégal ndar fuut. lu ah, yow yaa juum. <laughs> Ah, Kaaw. ah yaa juum. ki nekk France. waaw mën na yónnee ki nekk Sénégal Orange Money te ki nekk Sénégal da koy jot directement sans problème te du am benn frais. Eh, yow xanaa dooy déglu information. ah bien sûr xale bu jigéen bi moo am dëgg de ki nekk France mën naa yónnee Orange Money ki nekk Sénégal sans ah. problème et sans frais. Orange Money dem na boobu foofu. mais bien sûr Orange Money war naa àdduna quand même. Ah. aussi yónnee la xaalis mu jaar ah. foofu. jaar ñëw Sénégal lan moo tax sa livre yi doo ci lire <laughs> doo ci informé wu <laughs> adduna du lekk naan rek ak sëy eh, ah, il faut ngay jàng aussi bu nekkul kon orange mu ne léegi am na doole ah mais bien sûr <laughs> bien sûr man pour man day doose ma sax ah waaw ji bi ji bi je pense ji bi non non non mille et une bi c'est bon ah, mille bu jigéen bi nee day jaaraat dama koy photocopie indi waatal la. nee na tey jaral bi ne woo kooku kaxaan eh. barke Rasuul di dinañu jàpp fii dinañu jégga fii si sama taabal bi ñëw rek yóbbu ñëw rek yóbbu. bon c'est qui qui est accrédité C'est qui Vous C'est vous deux qu'on rassemblement pour écrire là c'est tout juste, il n'y a de faute, hein C'est juste pour apprécier, on ne peut pas. Hein? Hmm. on fait la cour de nous-mêmes. que la vie, il faut connaître vos personnes. Qui est-il Quelles vos sources de naissance de votre famille, votre pays On est un pays l'Afrique, d'un côté de en haut en Afrique, côté de Bouche Mais le plus important, c'est d'abord comprendre votre pays. Vous êtes des Sénégalais. xam sa bopp xam sa cosaan xam sa bàkk réew sa bàkk réew mooy hymne national parce que beaucoup des élèves quand on est à l'école de primaire dañuy jàng hymne national mais bu ñu màggee fàtte hymne national te sa bàkk réew muy sa cosaanu réew danga ko war a xam ngir bu ëllëgee soo génnee nga mën a bàkk sa réew gis ngeen équipe nationale joueurs yëpp dañuy taxaw ñuy way hymne national basketteurs yi boskomaan yi karateka yi judoka yi képp ku génn foog ñu taggal hymne national Sénégal kon dangeen ko war a fonk si ma suivez gis nga militaires yi gendarme yi policiers yi ñëpp dès maintenant sax président chaque lundi dañuy def levée de couleur équipe nationale équipe safa dimanche drapeau national def hymne national xam sa bopp. voilà monsieur Ndiaye ni nga war a continuer si olof bi. Hmm. parce que si olof bi rek lañ mën a comprendre. Hmm. waaw dama am habitude xam nga tamit mooy jàngandoo tubaab yi damay jaxase rek ko ñoom voilà voilà wala fii la existé mais pas tellement international naa koy placé dégg ngeen ah mais ngeen xam seen cosaanu réew bàkk seen réew léegi nag on allait droit au but l'hymne national c'est Mame Ndiaré qui premier crée l'hymne national après Mame Ndiaye c'est président Ablaye Wade qui crée waat l'hymne national renforcement tëggaat tàngal ceeb. monsieur Ablaye Wade. ko bind. Léopold Sédar Senghor. ah ni ma ko jaawalee Union africaine dama jiw xëy na ko la rek mais Léopold Sédar Senghor moo ko bind on se chante pas avec reggae. on ne s'acharne pas avec Mbalach, on ne s'acharne avec... C'est les fanfares. Ok, hein? Le premier couplet, à grand modo, c'est... C'est Pese Toun, Vokora, Fapele Balafon. Monsieur, Pese Toun, Vokora, Fapele hmm? Balafon. Ah. Après la première couplet, la deuxième couplet, placez les rouges arrosés. Les rouges arrosés. Répète, les rouges. Les lions rouges arrosés. Voilà. Merci. Arrosé rek La troisième couplet, les cipètes étaient nègres, les nègres étaient soleil. Répète. Les cipètes, les cipètes étaient nègres, les nègres soleil. Le ventre de l'arbre. Voilà. On arrête sur la bouche. Après, la prochaine cours, continue la mais li ëpp solo daal moo di nit ku nekk dafa war a xam boppam. répète. nit ku nekk dafa war a xam boppam. nit ku nekk dafa war xam boppam. nit ku nekk dafa monsieur Ndiaye. yow xam nga sa bopp. ah. xam nga sa bopp. demal jàngi hymne national soo ko jàngee ba pare ñu ñëw jàngal bi. léegi kon xam naa rek. front sur la table. monsieur Ndiaye te front sur la table te yaay front sur la table. nga ni. te yaay front sur la table. front sur la table ngeen bañ. Bueno. yéen ñoom ay nit ma jaaxal. xam naa ne garabu coono waroon naa xam naka lañ koy waxee ci tubaab ba ma woo Souleymane Sow ma li mu dimbali ma ci. Matar balaa woo ministre des sports garabu coono mu ne ma arbre de Fatick ma arbre de Fatick mais mais ñoom naka ngeen def. ça mais tey tey tey vous êtes timide wala wala wala méttiitu njàng mi la ah gis ngeen ko de gis nga xale du am temps surtout nga toll ci moment bi war a jàng waroo am benn temps xam naa ne monsieur Diagne mooy leen temps mi ngi yokk ci yenn xam-xam ah di augmenter seen seeni seen seen seen i loolu moo leen jàpp. kooku mënul dara. kenn mënul dara jàngaluñu dara. Moussa xanaa da nga koo mere ndax lu mu la mayul temps eh, grand professeur comme Moussa Diagne fait le tour du monde Afrique de l'Ouest Burkina Faso Banjul nga ne xamul dara. papa kooku góoma sax mu nekk professeur. ih eh, bàyyi leen ku leen teg lu metti ngeen def ko ennemi kii dafa bëgg bu ngeen màggee ma ngeen jariñ seen bopp ah. papa kii national sax mënu ko woy. hymne national ba. bu Sénégal. waaw mënu ko kon da leen kon kon da leen di seetlu. kon da leen di seetlu. pincez tous vos koras, frappez les balafons. le lion rouge a rougi, le dompteur de la bourse. lan nga ne mënu ko. papa li ngay wax ni sax mënu ko réciter. Eh. Eh. est-ce que tab jour boobu est-ce que jàngul loon éducation sanitaire ndax éducation sanitaire pour pour kaf ak élèves yi la bokkul ak éducation physique. kooku kooku français am sax seetu. dama ne. français bu setee bu setul da ngeen jàng dangeen bëgg ma dàqu nga ngeen am liberté jàng. papa wax nañ la daal yaay su ñëwee balikat yoo xam nga yaay tëdd baax na. seen yaay xam naa ko waaye was moom tamit xam na ma seen yaay ak ma xam ah bu bu ñëwee li mu fi bàyyi woon ak li mu fi fekkaat xam ngeen ne wut dina wute seen yaay dina xam ne français dëgg la fi fekk. papa su ñëwee gaw ma sax mu kontaan. kan di kontaan. seen yaay ñoo ngeen récité ci kanamam. la superficie du Sénégal, géographie, hein? les eaux, observation, notre corps comprend trois parties. yooyu ngeen wax ko seen kanam yooyu ngeen defe na du kontaan. papa Kero fii lañ ko ne dañoo problème mag ak observation mu ne biiram day métti day ñib. jour hmm. boobu est-ce ndekki na parce que donc un professeur avant de apprendre les élèves il faut bien manger parce que parler parler aussi c'est fatigable de. oh metti est-ce que jàngal na leen ne connaît jamais son âge. est-ce que xam na ko sax. ne connaît jamais son âge. son nom ma foi pas davantage. sa famille. il ne connaît plus. il pousse comme une herbe folle. choice choice choice. naam co garabu tooy bi jotuñu ko. tu connais garabu tooy. tu connais pas tooy. oh ton père tëgg oh tu connais pas la bouteille ndox njambaan bi nekk foofu. wala yoo xam kelek bi kelek buy bisaab rek ñu ne il ne connaît pas le garabu tooy <laughs> tout le monde connaît garabu tooy même le président Buhari di garabu tooy parce que il voyage chaque jour président de la république jour il met di kel buy bisaab voilà. allo waa Tijaan tamit yow Tijaan nu waa déglu rek waa Tijaan yow nan na mën a joxe kuuru hymne national ma commencé di def hymne national xale yi di ma rectifier comme pour plus la possible ñu leen neex lañ ma doon rectifier man kay li nga wax rek laa wax di non Tijaan xam nga lan laa bëgg nga jox ma cours yu léger cours yoo xam ne dama koy maîtriser su ma demee di ko wax xale yi dañuy xam ne kii li muy wax maîtriser na ko xam na ko s'il te plaît tamit Tidiane waaw s'il vous plaît yooyu sax tane na yooyu sax baax na ah tamit bàyyi leen di nit di yéen yaakaar wóolu leen doyloo leen pare ngeen koy dugal ci loo xam day dem ba devant public di am gàcce waaw man géré naa ko rek day fois bi rek waaw ay nettal fois bi rek mais si donc c'est de la C bi foofu laa amee problème frère waaw baax na amul problème jaajëf ah te nag del sa téléphone parce que yaa yore sama njàngale instant yi man jàngale wu ma de yaay jàngale yow yaay jàngale Tijaan wax naa la ko de ok jaajëf du respect lii yàlla na ci yàlla may résultat Mademoiselle, le nom c'est comment Awa. C'est une, c'est, une, c'est, une, c'est un très beau nom. Mais sinon, je, euh, je, j'aimerais aussi euh, te dire que j'habite tout près d'ici et moi je viens de la France. Euh, plus précisément à Cergy-Pontoise, allée des Plantes, village 6000. J'habitais là-bas. Mais maintenant, j'ai quitté la France pour euh, euh, m'installer définitivement au Sénégal. Et bientôt, je serai le, son excellence, monsieur le maire de cette ville. Comme je suis célibataire, j'ai besoin d'une femme euh, que je veux épouser de, de couleur noire d'ébène avec, une forme, avec des formes généreuses. Et ça, je l'ai vu en toi. Est-ce que tu es prêt à être ma femme Bubatili yo eta malsudu ya irak. Rantak, kau. Bubatili yo. Hei, bas. Eta malsudu ya irak. Bak naa la xamal mel ni mbir la. waaw. xam nga doxaan jeexoon na ci koñ bi complètement waaw. mais gis nga sa waay njool. ji bi ba mu jógee bitim réew ba léegi. waaw amatul jàmm. kii nañ ko takkal jabar ndax mu am jàmm ndax mu dal. maa ngi ko fekk ca boppu koñ ba. ma ngay doxaan taxaw ak ndaw su ko naan ko tam ak maamam koñ beeg maa fi pare nekk meer ak. xoolal loolu yooyu pour lan yooyu façon doxaan yi xew yooyu pour lan. léegi moom léegi ji bi moom noonu la bugg a jàppee addunaam rek. daa dafa ne léegi sénégalais yi ñoom dañoo waye di wala lu leen dal ñoom. Ah? ah noonu la def xale bu jigéen bi jaar fii te mu yaru rek te bu ñu rombee papa kaaw. papa baax ku baax kooku noonu. waaw dégg naa day def ko dragues. day dragué ko ne moytu boppam. xale boobu mineur la mineur ah, oh. mineur la. Bassirou Gueye du ko toléré de. <laughs> mineur eh, eh, baax na xale boobu mineur la de. du toléré baax kii daal la ci pexe mooy. Hmm. ñun ñooy ay nitam. nañ fexe woo ko yedd ko. takkal ko soxna mu jaamu ci yàlla te bàyyi yi muy def mag doxaan nga bàyyi yi moo gën de ah, boo fi doxaanee mineur ba dara dal la ci di nga xam ne procureur yooyu di ko toloori Sénégal fii waaw muy nga fekke muy nga fekke ji ji bi fu mu nelawee suba teel ba kay dem muy dem wala déedéet kay laa ilaaha illallaah hasbunallaahu wa ni'mal wakiil ah yaya sama yaaragom déedéet li boobu ay ay yow day ji danga <laughs> bu góor rek comme boobu na takki hmm? na takk moo gën de nañu waayu nañ ko woo ñu wax doxaan boo toolo ci takk takkal wax yàq sa xaalis yàq sa doole pour lan dégg yow parce nga ñàkk fayda nag am nga man defuma yàpp yow xaw na la rus tuuti di nga koy woo ñu ñu def ko réunion man ak yow waaw ba tey waaw loolu tamit solution la ah? loolu tamit solution la mun na nekk loolu tamit solution mun nañ ko may mbooñ mais mais boo bu mu xam ne rek maa lay nettali yenn affaire eh, de man ah, bu mu xam ne fenn loo ma voilà bu mu xam ah, ndax du ma ko wax ne yaa may eh, de du ma ko wax yaa may fennal de du ma ko wax yaa may nañu waxtaan ak moom rek. tey mbaa jaral nga. Gaaya. bii maa de depuis sànq maa ngi bi di wax téléphone rek. tay business bi dafa métti. dañ lay woo xaar xaar. amoo benn temps allo. waaw. ban toll. su yow xam naa ne marchandise bi dina egsi si jàmm man lool xam naa ko yow da nga bëgg xaalis torop déedéet bul yónni kenn pour muy ñëw di jësi si xaalis bi di ko yóbbuwaat ba Guinée loolu wóorul non yow mi nit nga Guinée ba Sénégal nga bëgg yónnee nit pour mu jëlal la xaalis dëkk bu tar bi bàyyil ma dugalal la ko Orange Money defaral la ko dépôt non non frais yi bul ci am benn loolu looy jaaxle. li ma lay yónnee loolu ngay jot ci sous région bi yëpp amul benn frais waaw orange mu ne kay ah, mais loolu moo gën ngay yónni nit déjà nit ki ngay yónni danga koy fay te li ma lay yónnee par orange mu ne amul frais bàyyil bëgg xaalis man ci liggéey bi laa nekk yàgg naa si man képp ku may ti jottalante affaire de xaalis orange mu ne laa koy def du am benn problème mais bien sûr. waaw ok amul problème naa la ko yónnee ok waaw ñu def noonu maa ko yónnee léegi léegi balaa timis affaire bi dina egg si waaw d'accord amul problème ok bisous. ci engagé nga nag maa ngi soo ko gëm nag sa engagement ci liggéey bi. déedéet xam na la daf ma war a yónnee marchandise. waaw léegi mu bëgg su marchandise bi egg see mu yónni nit pour mu ñëw jël si xaalis mu yóbbu ko ba Guinée. loolu du beneen coono. amul sécurité ma dugal ko ko orange money moo gën. te su yónnee nit day fay livraison. te su ma ko ko yónnee par orange money du fay benn frais. ah am na solo daal. ah mais aw temps yi toogu de. yii time is si kër ñoom di bon. kañ moom amul kii ku toog fii jour play mu ngi. waaw bon am na play suñ demee foofu moo gën a nekk balaa ñu toog fii ba pare ñu sonal dëgg ñu ngi dem ku nekk si suuf. waaw day am. venez venez venez vous va bien. tey amul kuur am mais dafa am histoire bu importance te foog ngeen xam ko ñëw leen en classe. on démarre. Eh, eh, eh. l'entrée, l'entrée, elle est à classe. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe Oh, c'est chaud. Bon, aujourd'hui, euh, c'est très important parce que aujourd'hui, on fait euh, l'histoire d'un livre. un livre très important c'est un livre de Sidi Rahman tu connais Sidi Rahman vous connaissez pas le Sidi Rahman vous lisez quel livre pour le moment Ami et Ami et Ami et Rémi moom ñoo fi jëlee Sidi Rahman parce que c'est un problème de discussion bataille raak ainsi de suite il crée des polémiques Sidi Herema gàddaay Sidi Herema c'est une grande famille parce que nous c'est Sidi Herema on a commencé de liser monsieur Guèye mhm. s'il te boo ñu bëggee expliquer histoire waxal ci olof ñu mën a comprendre ok bon français mais j'essaie de parce que wax wolof bu leer mënuma ko mais le plus important le ëpp li ëpp solo mooy ngeen xam ni Sidi ak Rama ay jàngkat la ñu woon. loolu ban année la. ah quatre-vingt-seize je pense di quatre-vingt-seize quatre-vingt-quatorze un plus daal c'est pas loin mais juste c'est juste le année de quatre-vingt-seize quatre-vingt-quatorze. mais ñu ngi ci deux mille vingt et un jàngal ñu lu xew. voilà deux mille vingt et il faut penser sur la des années passées pour venir sur la 2021 dégg nga wax histoire bi nag euh, c'est large parce que tonton Simon dans la dent sur l'histoire c'est une cousine de Sidi et tonton Simon Tata Rose il gère la vie de Sidi et Mais finalement, sur les problème Tata Rose retourne à la village. la village Au Ok. Au village. Mais après le retour la village, au village, au village, au dimanche, il récupérait Maman Rose à la village. D'où Tata Rose, moi, village. Waouh, Maman Rose, tu m'aides parce que tu famille la beaucoup. comprendre nga. duggal ci li ma la wax li mu doon waxtaan jour bële. dugg si. non dama ciy dugg. d'ailleurs sax maa ngi xool nga vente en ligne laa bëgg a def maa ngi contacter ay quelques gens yi nga xam ne seen page ñu ngi koy suivre. nga xam ne du coup man su ma commencé dugg rek dama leen di jox ñu may partagé même waa Télé Sénégal euh, contacté naa leen par Instagram mm-hmm. d' accord nañu quoi boo bëgg a dem ci xam nga WhatsApp Snapchat. xam nga man damaa nekk sur le terrain. Mm-hmm. di jaay suñ ma jaayee fee en gros. Mm-hmm. damay ñëw jaayaat ko si biir marché bi jaayaat ko en gros. yow nag defal vente en ligne bi. non amul problème noonu lay def. defal loolu fi daal laa amul xam naa foofu mu wifi nga xam ne après connexion bi daal affaire yi dina yomb. loo xam ne lan la fi c'est bien boo di nga connecté wu normal hmm. mais jëndal pass via Orange Money. ah dangay da ngay connecté wu normal. te booy génn tamit di nga mën a continuer sa connexion. Ah. comprendre nga jëndal loolu. kon noonu la ñuy def xam naa noo def ma dem ci application Orange Money bi. Mm-hmm. di jënd foofu paas commencé def samay affaire loolu ngay def sama wifi di ñëw lu la si jaaxal rek mhm. ci fi ngay dugg ak ñi ngay contacté man naa la yónnee ay contact yu bëri yi nga xamante ne di nga leen mën a ajouté Instagram mhm. te xam foofu liggéey bi foofu la gën a doxee si si comprendre nga maa ngi fil naa la partagé aussi sa page sa yooyu loolu yëpp mm, après yow ñu déggante rek aw nar ma cee jàpp nag de yow sama nit nga su ma la jàppale yow kan laay ah, jàppale man daal aw ma sa fay kontaan naa de sant naa la gërëm naa dañoo war a incha allah waaw naa nekk sa situation. mooy yow wuy ma. waaw la si jaaxal rek def ma si. xam naa amoo temps bàyyi ma bàyyi la nga dem rek. après ñu déggoo léegi waaw dinaa la woo sax merci beaucoup bonne journée. kii. Salif sur la problème finalement Salif il a Fouta pour continuer. monsieur Stop kenn du il est allé hein mais Salif sur la retour de Salif y a beaucoup de polémique parce que au début Salif il n'aime pas de retourner mais il y a pas de solution parce que la famille départagée il y a un filtre dans la famille de polémication des débats il faut tout le monde prend les responsabilités quand Adama commencer de regarder les gens, les membres de famille prennent les bagages, arrangement des bagages. Adama, il prend les responsabilités de retourner dans la tente, ancienne tente de la famille. le turandoo nu ngay tubaab bi waxee. mu la dem seeti moom moom moom dafa dellu ci famille moom. monsieur homonyme la ñuy Merci. Les homonymes, dans la membre de famille, chaque personne prend le homonyme. Mais le plus important sur l'histoire, c'est comprendre que ni Sidi et Raman, c'est les bons élèves, les citoyens. Très important, parce que Sidi souvent, il montrait comment on vit dans la rue, comment on discute avec les parents, avec les maîtres, avec les membres de famille c'est une chose très importante kon les petits enfants retournez votre pensée sur les l'histoire de Sidi Herma ok. oui. y a pas de suggestion. monsieur Diagne li kese mooy histoire Sidi Herma. bon dama ko tënk dama ko brosse parce que munoo wax lépp lépp lépp lépp xaju ci parce que livre bi dafa bare page. mënu moo expliquer leen mais dama ko résumer pour la forme pour seen compréhension mu yomb ci mais c' est très important yéen tamit góorgóorlu leen ba am seen histoire. monsieur Diagne ban école nga jàngi. école provisoire yi. école provisoire. monsieur école boobu wul de. non provisoire am na mooy école yi nga xam ni ay zinc rek la woon ak ay euh, kirtinding xam ngeen kirtinding. keroog yooyu yaa ñu waxoon ni que yow président yi la bokkoon école. c'est provisoire la président foo yaakaar fa lay génn loolu dafa yàgg du tey mais le plus important mooy bu leen jàng jàngum yàkkamti jël leen seen patience ngeen am esprit de savoir un à un. monsieur Diagne problème bu Sidi Aïrama am ak ami RM yi moom nañ bañ am ak yow. y a de problème je ne cherche pas des problèmes je suis venu ici pour donner des cours. ranger ba bagage. déjà ranger. tey histoire la lay expliquer. téléchargé ngeen ko seen cerveau c'est bon. France sur la table. dañ koy yàqal mosu ñu yaay bàyyi ñu ngi lay mos nekk ba. moom monsieur Dieng jeexal na bonbon yi de kii dafa chaque jour suñu fi tegee bonbon moom daal nee na ko kaf moi, parce qu'il trop chaud, on va en parler à papa. Oh là là là là là là. Comment vous allez? Ça va. C'est ça que je voulais, vous augmenter vos français, parler français, parce que la vie euh, foofu la toll ah mbaa yéen a ngi góorgóorlu très bien. on veut aller à la piscine. aller. à la piscine. ah bëgg naa leen trop mais loolu teel na jàngaat leen ba ci kanam ay xale ngeen bu ngeen demee ci usine heure bi amu leen xam-xamu liggéey amu leen doole bi c'est pas la peine. jàng leen bés kanam. papa eh. ku fi wax affaire usine. ah ma ne la pour sangu lan ngeen fi jàngagul bay sangu ji piscine. waaw entrée. oh la la la la la. Monsieur Diagne. Le grand vieux. Comment allez-vous Ça va bien. Eh bien. Et tes activités e très bien. Et le travail le boulot Bon, fatigué, ah. ah. de mourir. Ah. ah. Mais tu restes ici. Belle papa et belle maman, vraiment, mm-hmm, vraiment. Mm -hmm. euh, euh va <laughs> gis jàngaloo nañ ma bu yàgg ñu ah. ngi noonu li ngi noonu lii nag booy correctionnel lii c'est très important nga am sa njaboot bu ñemee correctionnel parce que bu fekkee da nga nekk élève peur ah professeur bi napp la doo mën correctionnel c'est vrai te xam nga correctionnel dafa bokk ci àdduna mm-hmm. déjà ñoom ni ñu leen gisee nii journaliste yi muñ toogee di wax mu ndefee fët ñoom dañ leen di correctionnel devant un président de la république mën na dem faute ñu correctionnel ko xam nga député yi correctionnel mm-hmm. chef de quartier yi correctionnel mm-hmm. c'est très important c'est bien c'est bien vraiment c'est bien euh, debout les soulevez c'est votre maîtresse soulevez allez debout monsieur Diagne je me lève asseyez monsieur Diagne je m'assois ok elle e est grand père ay zena ngaleñ ah, ngaleñ grand père musée <laughs> de droit de ngaleñ ah. parce que foofu ngaleñ il amène les enfants eh, vraiment vraiment ah oui ah, vraiment continuer de ngaleñ rek merci merci euh, le plus important aujourd'hui votre papa est témoin dans la aujourd'hui de la cour la cour c'est une très important aujourd'hui parce que c'est la vie parce que des fois il y des gens qui respectent pas la vie la début de la vie et la fin de la vie c'est l'eau il faut comprendre la l'eau il est important pour chaque jour quand tu es réveillé. absolument. la l'eau. loo nañuy wax. waaw ça dépend de quel lot. ah là il faut écouter il faut écouter. Mm-hmm. oui qu'elle dit c'est vrai. Mm-hmm. écoutez mm-hmm. là. y a de lots. y a de plage. comme on dit la mer. y a de. ndox bex. fleuve. de pluie. sur les génération Tu vous connaissez la low. Toujours vous avez vu la low dans la télévision. Il y a de l'eau Nord City. Il y a de beaucoup de l'eau. Mais même si il y a de l'eau minière. Portable. Ah, il y a des. Merci. L'eau potable. Ah. Potable. Comprends Parce que c'est l'eau légère, légère. Le degré de l'eau timide, il y a des différents. Il y a de l'eau lourde, il de l'eau légère. Mais la lo pour les êtres humains, c'est de l'eau léchée. Léchée. Léchée. Bref. Oh, Vous entendez Bon. ti sais que chaque personne a une bouteille d'eau. Au minérable, on casse. Voilà. Oui. Tu suivis Je suis Merci. Mais le plus important, mm-hmm. quand tu es réveillé dans la lit. Mhm. on dit dans le lit. merci c'est la corruption même la lit. Mhm. commencez de boire de l'eau mhm. maximum maximum sept litres jusqu'à dix litres par jour. c'est vrai chaque homme peut boire litres par jour même. vraiment. un litre wala ku du lekk fruits ak légumes deux litres. peut le dernier litre yi mais le plus important connais que l'eau c'est beaucoup de façons de l'eau quand tu ne bois pas l'eau tu es déshydraté. Mhm, surtout parce que après la déshydraté. déshydraté. merci déshydraté déshydraté mais quand tu es digital. jusqu'à évaluation en hôpital avec les sérums. Calcularisé. Merci, calcularisé. Parce que les sérums, c'est pour renforcer le mhm. dos personne. Si. Quand il est allé en hôpital, voir une personne avec un sérum, une personne, une personne avec le sérum, ça veut dire qu'on prend la mhm. corps Magnifique. Le plus important, prend les, les Ben, tu es en train de le tuer, prends le de à droite. Qu'est-ce que vous voulez Joue, tu es une suggestion Il n'y a pas de suggestion. Écrire la lo. La lo. Faire C'est bien. Ensuite, super. Montre-toi. Est-ce que dire Mais aussi, tu es ah. dans le cours. Tu es dans le cours de rapetissement. Montre. Sopi. Ah, il de campagne La le a laa. lo o. loo. boole ko. laalo. yii pour man de sama xel ñu tam xarit ji rek. vraiment vraiment laalo mais il reste beaucoup de temps. mais le plus important. Lalo, on se préparait par dos. Par dos, oui. Sans dos, il n'y a pas de Lalo. Oui, oui, oui. oui, oui. Quand on prononce dos et Lalo, c'est bon. la même chose. C'est la même chose. Tout, c'est la famille de Lalo Mbep. Bah, merci, merci. Et euh, demain, Inch'Allah, je prépare un cours sur les signares de Saint-Louis du Sénégal. Voilà. Merci. Rangez vos bagages. Voilà. Euh, monsieur Bach. Oui, monsieur. Pour la paye paiement des enfants. Ah, fin du mois bi. ne mhm. monsieur Diagne su ma la fayee na nga ci jënd ceinture. amul benn problème ndax un professeur ne crispose pas. voilà ah tu n'es pas un rappeur. waaw c'est interdit tu n'es pas Y'en a marre la loi de. <laughs> allez sur la table. allez à la maison sur la table. ah c'est la faute c'est comme ça. ah c'est comme <laughs> sur la table. voilà. Euh, monsieur Diagne ça c'est le ndekki des enfants. less two to two all right let's see Prends sur la table encore. Je dis Con hace pa. A ver, duerme. Fadi Seck maa ngi koy woo mu ko jot. daal Fadi Seck daal man daal sama mère bi daal nu may def ba jot ko jaaxal na ma. kooku kooku mooy le lion di waalo. kookooy Fadi Seck. yow saa yow nit ñu baax ñi ci dëkk bi yëpp xam nga leen. kooku moom mooy daaj bi. le nouveau maire di Waalo. ça oui ma. ça va que da nga koy dugal ci kii di ko passe numéro yi ñuy dem. non bu ragal dara yow. yow yow yàlla dogal na ni. Euh, incha allah lépp lu ma nekk lu ne dañ ciy nekk. ah mais mooy yoon de maa lay génne ci lu bëri. loolu ma fee naka la mi ngi ko. yii parfait. Hmm. musuma xam ni. non mais yaay ngam. kuur yi ma jox. dama ko répété waat rek xale yi tàccu. mais papa yi xale yi ñëw apprécier ma surtout ku ku dóo bi ndox mi hi boobu moom man bu xale yi àndandoo tàccu. nga xam ne toj nga fa. seen papa jóg tàccu jubilé. kon naa non kenn day yow. kuy ma. Mhm. waaye yëg nga bëgg affaire bënd bënd ay mais waxal na ah saa yi ma. Ah. warut yéex. maa ngi waroon xaar sax may ànd ak yow ba fii nii. amul problème ah tamit man man fi mu yaay sama guide. defal ma ko déggoo rek mu baax. waa xaar ma defal la ko. mais wuy ma desaat na yeneen cours nag. Mhm. Mhm. desaat na yeneen cours yi may war a jox parce mhm. que war nañu waxtaan xaw war nañu wax ci waxi mbay beeg yooyu noonu yëpp war nañ ci war a waxtaan. ah man je suis un digne fils de Pout. de Pout mosuma la ko wax. puut mel mi mi ñuy jaayee mango yi ah. yooyu. pour man sax ah, di. loo ko woon. lu ma yaakaar sax diin kii nga wax. mooy ñu bon yooyu rek. de waaw ah, pour man sax kii nga wax. mooy wax yu bon yooyu rek diin est de kii. léegi nag fii ba le vingt quatre octobre bépp transfert boo def frais d'envoi doo ko fay loolu Orange Money daf ko jagleel client wu léegi yow lan mooy sa problème. Ah, man <laughs> instant bi nii naa mais yow instant ah. sa bopp ngay wax. Ah. léegi man mi war a retiré yow si journée bi am nga ci ñaari bonus yoo xamee ni frais bi deux cent deux mille francs boo ko retiré doo fay benn frais loolu nag ñaari yoon nga koy bo mos ci si jour bi. li si des nag da ngay jéem a xool rek. ci organiser leen moom <laughs> da ngay sew rek da ngay sew la du metti dégg acca mais loolu nice na. comprendre nga waaw maa ngi daw instant bi dama war a lijjanti yeneen dund. waaw mi ngi noonu. on se ci kanam. waaw ah, si. problème boo am rek dafa waaw tey le poutoir. kenn du yow. <laughs> fils de pout poutoir. un jour viendra tu es maire de poutoir <laughs> avec la budget de petit budget de pout. <laughs> waa Safa kii nii di fi dugg tout le temps étudiant bi lan mooy soxlam ci kër gi léegi gis naa ko un deux trois mu ñëw dugg ngeen wéetoo. après mu jug dem kii lan la fiy def tout temps. seen affaire syndicat bi laay wax. syndicat wu lan yow. sa journée université di xeex lu nu defar ñu toj di jooy ay mburu yu amul chocolat par problème comme man maay parrain moom ndax xam nga Pout waa la. waaw te man waa Pout maay seen parrain ndax dama mosoon a romb rek léegi nag à chaque kii dama koy woo. laaj ko fu syndicat bi toll baa yaa ngi éviter xeex bi. yow xam nga sa jàng soriwul. waaw loo ciy wax xamal loo ciy def. jamono neexul de. Ah, bu bu may wax sax bu yëkkatee téléphone am man noppi na man ay vidéo dama xaw a ragal léegi. baax na bu ma ko waxuma yow lay wax. ah na sa jàng soriwul. <laughs> moom étudiant la am na niveau te yow amoo niveau damaa bëgg na nga xam sa bopp. waaw man la yéen la ah Orange Money dama gagné leen cinquante mille waaye loolu neex na de waaw mais cinquante mille naka laay def ba jot ci il faut mu envoyer le cinq mille pour mën a jot ci cinquante mille yi waaw mais Fall ñun de ñun de ñun de wax dëgg fa yàlla ay étudiants lañ dañ koy ñàkkante rek léegi xam na la ñuy def danga may danga may danga may lebal man cinq mille saa su ma jotee ci xaalis bi dugalal la dara waaw ah. danga may lewal cinq bi man après naa la naa la dañoo baax waaw Sénégal dafa neex façon dóor yu nekk ngay gis déjà orange naka la la mën a wooyee ci numéro simple naan la ay da nga cinquante mille francs ak dëkk bi nu mu méttee. jox ma damay dem marché. nay lu xew marché. Eh. du dem jënd yu ma soxla. loolu soxlaati. Tafa lan lañu waxante woon. wala da bëgg ma toog fii di répéter à chaque fois. ah kon say soxla du jeex sa soxla na kër dande ah! lu ne mën nga récupérer lu ne mën nga cee loué seize récupérer ci xaaj def ci lu ne. ah, ah say soxla ah waaw dafa naa gën a xool ma dafa yow instant yi moom aw ma xaalis di génne xaalis ndax yoroo ma ko sax. ah waaw baax na man maa ngi ci biir di la xaar. Mm. soo paree loo xool xam ne ñàkkoon dara yaa ngi lépp ku dem ba ñëw caax mel na joker. di ko sol xam nga ne ñaa ko dara kii bu daan kii bu kii bu fas benn tànk ma jaar. Kër Mbaye Fall xam fu mu ci gën a madame Baax comment tu vas. yaa ngi ci jàmm. la Pologne ça va fan. Sénégal yow doo nekk Pologne naan da ngay namm lu tax nga bëgg a ñëw. sama xel dafa nekk ci ah, nga namm seen baay. Ah, il faut kii rek moo gën entre guillemets ngeen def baaxul. Oui, ça va très bien tout. Oh, actuellement, wop, wop, wop, quelle surprise. Oh, xale yi seen njàng yokku na seen xam xale léegi dootuñu wax olof. Ah, <laughs> dama leen di yónni guro sax ñu ne ma guuxoo ma ne leen qu'est-ce que ça veut dire guuxoo ay Kola guuxoo Madou Madou sax bu ñu koy wax da ngay xam ne ay doomu tubaab lañ. léegi léegi léegi léegi baal ma jël si la baal ma jël si la. ah tot man léegi yow man man man sa waaw mais man sama sëy ak yow fi ban njëriñ la am lu ma la bëgg a defal nga ne ma garaawul ah. non mais tu tu dois me fatiguer. mais tu dois me tuer même. Bouh, ah, bref. Bisous, Ok. diabo. Calça. Calça. kaw war a sees war a sees war a. on se calme on se calme. ñun la. xoolal c'est nous c'est nous c'est nous c'est ñun la. Kaaw regarde nous c'est nous. waa ju baax ñun la. dalal ñun la ah. jubilaay nelaw mbedd. mag du nelaw ci mbedd. ab commerçant noppee day neex. commerçant du gaaw a nelaw. jooda. lii def ma léegi lii ngeen def ma ni mun eh, ngeen ma. rek laisse eh, tomber c'est juste des blagues. toogal oh. gaal gaal gaal bàyyi mu waxee. bu ma def yooyu. daal daal daal ah li reetaan na loolu paa bi de. tuuti ngeen rey ma. joono joono. la ilaha illallah muhammad. déet déet déet. Umar oh yow Ndiol doo gi nga ma waaye tam. yow da ngay lekk a toog yow da ngay lekk a poobar. Ah, doo gi nga ma de Ndiol. je m'excuse. Eh, bàyyil di ñëw fi ne boo doon nelaw ba nit ñëw jël sa marchandise mi yóbbu ko looy wax. day sonn na guddi bi. démb si voilà justement. li tax ma nelaw ni sama ndijaay day woom. waaw kaawam nu di xam. gil Fouta sama ndijaay moom moo wax Fouta démb ay trois heures du quarante du matin. di ma wax wax bu wax boo xam ni. mu ne la ma sonal fi ñu toll nii. mu wax day jël doomam bu jigéen. waaw ah moom. mu day may mbax. ah day sa ndijaay jël doomam bu jigéen may la ko. njabar léegi nag loolu loolu loolu fi ñu toll nii man wax dëgg yàlla wax na ma nee naa ko maa ngi def passabal wii wu non day laaj leen comme sama xarit ngeen. Hmm? waaw yow sa nijaay bi mu la waxee loolu mbaa wax nga ko yow Siri Arama ngay jaay. waaw livre waaw. ah wax naa ko ne ko ay livre laay jaay. non turu livre yi waxu ko. Sidi Erama wax nga ko doon. waaw am na Sidi Rama am na Ansiou Abdou. waaw am na Aminata Salif. waaw Père Modou Tonto Simo Tata Rose Adama. bés boo ci duggee nag Sidi Arama dañuy dem Salif la table kese. leer la hmm. Hmm. li de. te bu la bàyyi en en sous euh, personne ne va l'acheter ah. en sous seul personne ne va l'acheter. a pas de compagnie. ah les gens ont besoin de toute cette famille. Sidi Arama Assou Abdou Aminata et tout sinon sinon. ça va causer des problèmes moi je vais te dire quelque chose ah. je conseil vivement. de ne pas prendre une deuxième épouse. surtout en ce moment où tu es véritablement en difficulté. ji bi doo ko wax tuuti wala. non dama ni ci période yi nga toll. période de crise nga toll. Uh-huh. dafa metti parce que livre yi ngay jaay boo jaayee benn livre bala ngay jaay ci yàlla xam. waaw qu'on dise la vérité. waay benn jabar nga am pour l'instant nii am benn néeg. waay à chaque fois sax boo koy fay c'est tout un tas de problème ñëpp a ciy jàpp. Mm-hmm. te néeg bi loué woo ko lu dul vingt cinq mille francs. donc tu as problème de joindre les deux ah, bouts. Kaaw. pourquoi ngay jël deuxième femme. jële gumate day wax ma moom. Ah, léegi bala ngaa jël bala ngaa jël lañ lay wax nii. waaw nag Kaaw. nit dangay xeeñ loo diwoo. bàyyi leen di xeeñ lu ngeen diwoowul. mënoo ko attanoo ko benn néeg nga yor. génn nga néeg ba fi jënd ko ay livre toog fii di ko jaay. wax naa ko. léegi nag da bëgg nag génnewaat livre dugal soxna. neel sa ndijaay mën a goo bañoo ko waaye mën a goo farmata noonu mu yóodi dafa rafet merci merci je m'assieds. Vous habillez très bien, hein? Comme les Africains, hein? Voici la tissu Sotiba. <laughs> Aujourd'hui, on fait une grande cour. La cour de cette drapeau de notre pays. C'est nous, on parle de nous. Monsieur, du la bâton pour la drapeau. Le bateau. Le bateau. Regarde. Les yeux ne prennent pas, mais ils savent uh-huh. ce qu'ils peuvent. Incliné. bët du yéen waaye xam na lu bopp. inclinément. Fatma dafa rafet de. dafa am ay bool am na ay bool yu rafet yu mu eh, àndal. muy dox day def nii. ah papa papa day ànd ak moyen. waaye <laughs> sama sama deuxième femme nii la meloon Ndeye ba ma koy takk. ah bon ah. Hmm. boobu maa ngi jaay ceeb dëgg maa ngi ci digg jaay si yàmbi. Hmm. Ndeye Fall toll na mar detal ginnaaw gi bu dee dox mar detal. Ah, oh. da ngay gis booy dox da ngay dégg ginnaaw gi naan sebatima. sebatima sebatima ndax ceeb ba ma doon jaay. Oh. tey anam noo ma gisa tey. effectivement nee na ah? de oh. <laughs> ay kii day day yàlla bu mu dafa bëgg jigéen nag yi debo ni bàyyil ba am bombom soo ko takk oxo mbom ri gis nga lii la dal bu góor la daloon na mbër mi loolu daloon na ko Balla Diouf hmm. moo tax fu ñu ko wul wulli ko de hmm. Balla di hmm. bandi bandilu takk a jabar daan takkaat daan takkaat ñu daan ko mu takaat ñu daan ko ñu takkaat ñu daan ko soo ko wàññi mooy wàññi mooy wàññi de Balla Diouf doos bi moo wàññi bandi bandilu rek doos bi lañu yóbbu jil rek jil kàmboom mais ana sa femme boobu kan si sa batim Sébatima. mais naa la sama deuxième femme bi la mooy dox ginnaaw gi naan Sébatima nday Sébatima Sébatima <laughs> nday Sébatima. oh, oh farma rek noonu lay def booy dox ma nii. Ah. buy di ñëw ma man dama def nogaas nogaas bi mi am nogaas de dootu ngay di di <laughs> mais bu mu tax nga takk deuxième femme amoo ko dégg ba am ko bàyyil ba mën ko dégg nga bay ba mu mën ko. ba yàlla may la nga soog koo def dégg nga góorgóorlu man loolu sama conseil pourtant Mame Boye Diao jox ma xaalis Mame Boye Diao mi la digal loolu sa takkul deuxième femme benn jabar la yor ma maa jaaj le drapeau sans la bâton c'est le couleur nationale sans le bâton c'est le couleur nationale avec le bâton c'est le drapeau de nation d'abord il y a des verts a un jaune il un rouge vert, jaune, rouge, c'est couleur de Mali. Mais faites attention très bien, suivez-moi. Le vert, c'est la couleur de l'islam. Parce que vous avez, vous avez que les mosquées, c'est vert. On est le pays de dialogue Ismaël chrétien. Le jaune, c'est le des houles, beaucoup de houles, houles, qui mangent les houles. le rouge c'est le sang des anciens intêtes mooy mag ñu njëkk ña ñu faatu yàlla il reste l'étoile avec plus une sixième l'étoile c'est les réformes parce que les mécontents les mécontents des problème de ce pays, on se, se, se, se sous-gère. Ça veut dire qu'il y a des manifestations sur les pays qu'on considère. Ça va, la gamme. Ça va, c'est lui Ça va. C'est qui ce monsieur C'est Moussé Diagne. Il est notre répétiteur. Quoi Vous l'effacez, répétiteur. Alors, vous le laissez faire une étoile avec six branches. Une manifestation. C'est lui. Wax ma yow ki la xale. On lui a dit que c'est pas comme vous appelez pas votre papa sëñ bi li nga de laa bëgg xam pour la. waaw kii pour yéen sixième branche bi mooy mooy pes maanaam. ok da nga ma xool ma nduró. eh ne vous foutez pas de moi ok. excuse-moi. ok ñi ma classe ngi def. terminal. eh appelez eh, vous mais yaa yéen a expliqué nii ngeen di def jàngoo leen bàyyiwoo leen di wër kër jàmbur di di vrai arnaque sëñ bi ngir yàlla. tais-toi. qu'est-ce qui passe dans mon salon. oh là. madame Ba toi aussi si tu viens appelle-moi au lieu de prendre un calando. appelle-moi. c'est qui ce monsieur. bon je présente. celle-là. c'est monsieur Diagne mm-hmm. le professeur de mes enfants way mm-hmm. baax écoute ah bi 10 mm-hmm. plus 10 égale eh, eh, eh. rek. sëñ bi 10 plus 10 ñaata la laaj yàq ah. réponse buy la ko arrangé rek plus 10 baax baax. day gën a gis kan ah, bon madame. ki ma boolee ak kii borom xam-xam la di jaay ay livres yoo xam ne xam-xama ci nekk muy jaay ko ci bu mag bi nekk ci bopp koñ bi. le caméléon là Kakatalu euh, ki xam ne il est partout événement bu ñëw mu ànd ak moom il vient de là-bas oh ci foot ma. ñu ko waxtaanee rek ñu ko arrangé rek. baax baaxee tu le benn doo amoo jëm amoo benn responsabilité ma bàyyi la nga wutal samay doom ni ñuy jàngee ku leen wutal xam-xam balaa école yi di ubbi nga wutal ma kii nga xam ne ce clochard la eh noppil mën a ah. da nga xam lan lay jàng xale yi xale yi ban classe de xamu ko sax mun a am ay terminal kii il a même pas son diplôme ouf son ba man mi xamul dara sax xam naa ne xale yi cm la ñuy def yow tamit ku ne leen terminal la ñuy def. ces gens ils m'énervent eh. Ah. eh réveillez pas ma folie ah réveillez pas ma folie. baax ci fee soxla di si. maa ma woote léegi. non non non c'est pas la peine. na nga c'est pas la peine. Ah, ko arrangé 2 plus 2 égale hum 2 plus 2. non non monsieur Diagne waaw. xam nga jéen seen genre yi ñooy yàqal yenn professeurs yi bàyyi leen di yàq deri professeurs yi sans les professeurs il n'y aura aucun président dans le monde ni avocat ni général ni euh, kilifa jàngalekat. c'est bàyyi leen di arnaqué. du loolu dama ne ci ay problème professeur yaa ngi seen place doylu jàng am xam-xam di dimbali askan wi. waaye dugg ci kër jàmbur yi mu bu ngeen xamee nu ñuy bindee yi ngeen naan da ngeen joxe ay cours de vacances defar seen mbaar dugal fa ñaari doomu jàmbur di di di ko jàngal di lekk man naka jëkk ma xam ne doo professeur un professeur ne crise correspond. ba nga ko xamee nga waroon kaa teel a booy jàng xale nga tëju fële xoolee lu ñuy def. tu les laisses faire ses bails après tu viens ici pour dire problème mu dépensé may leen ma dama amoon lu ma dundee sama njaboot situation yi compliquée soxna si amul lu mu lekk ma ne xaaral ma jéem ko. est-ce qu'on dit qu'il y a des gens qui sont pas gentils et humbles. eh non pile mais jëloon nga woon naan wit eh eh tu restes tranquille ah. lii yëpp ba nga ko waroon de defoo ko nga ñëw ba tey jii eh tais-toi. excusez-moi la vérité la quelle est la vérité. la vérité xam nga mooy lan man sincèrement pas je suis pas un instituteur. man man kii laa doon def ku leen di vacance. allahu akbar. maa doon di sol fi lex ci kaw xam depuis mais dama doon essayé la. <laughs> ok. kon di leen fooloo foofu. Ah, ok man loolu laa léegi booy jàngale ci sama doom yi ngay ngay ngay essayé. Moussa Diagne est-ce que man naa xool euh, sa kii ba xam yow. Aliou ah, jaru ko jaru ko diplôme nga yor yii laa doon jàngale ak yooyu <laughs> Moussa Diagne yow en tant que eh, professeur yow nga ne professeur lu nga boo jógee sama dem feneen entrepreneur. nu ñu arrangé ko nañ dem ba fële ñu arrangé ko. mais yaa ko def. aywa bu dee ma def lii non nañ dem fa nañ ko arrangé fi amul lu ñuy waxtaanee. nañ dem yaa a jouer nga mën nga mën a laa xam ne doo professeur yàq kattu der bi nga doon Elle ne pleure pas dans ma maison. Hein? Mais venez quand tu riez. Allez, non, petit. Je suis foutaise. Moi Je suis foutaise, complètement je suis foutaise. dafa lan la mbaa jàmm. ay man li ma yàqule di. loo yàqule lan la gaawe ma. ah Tafa on m'a licencié dàq ma ci biti ak sama liggéey bi ma tàmbali di liggéey ñu xëy suba rek jabaru patron bi ñëw licencié ma licencié bu gaaw boo xam ni toroxal ma menacé ma. waaw Tafa bal ma rek ma laaj la yow fan nga doon liggéeyee laa bëgg a xam. dama doon jàngale. <laughs> yow Tafa ban niveau nga am. yow kañ nga bàyyi jàng yow lan nga mën a jàngal rek laa bëgg a xam ay xale lan nga leen mën a jàngal Tafa. man yàqu naa rek. Tafa itakula Tafa ragalal yàlla xamal luñ la waxu en yow Tafa yow est-ce que xam nga lu la mën a fekk ci li nga doon def. ñaari élève i sëñ man yàqu naa. yow eh est-ce xam nga lan moo la ci mën a fekk. yow gis nga soo dof dofloo ba ñooñu porte la plainte ba ministre de ñëw taxaw. yow xoolal mën nañ la tëj à vie nag laa lay wax yaa may dégg Tafa yaa may dégg. ngay dama jommi sax. lii bu ko ministre bi yëgee. mais dañ lay tëj à vie. yow est-ce que xam nga yëfu éducation lan la. mais jafe-jafe kër gi. naa jafe-jafe kër gi. ba ba ngay dugg ci loo xamul munoo toog doo lekk. munoo toog nekk ci réew mi doo lekk. te nee na xaas kenn ko liggéey dañ koo lijjanti. ah loolu lan loolu lan. dañ koy lijjanti moo dañ koy lijjanti moo tax chaque jour soo xëy jël xool sa veste bu ci gën a dañ bu ci gën a diis sol ko romb ma je vais et je loolu moo ko waral kon. yow de bu yeboo nga dem xool nooy jéem a baabee ñee ñu bal la ak lu ko mooy lii bu ko état yëgee dañ lay tëj à vie nag laa la wax. te balaa ñu laa tëj à vie man xoolal nooy def ak man de foog nga teel ma libeere ndax du ma fi toog de ah yow de risque nga jël dafa risque bu ma yow ku la conseillé lii. ku ne de si moment de souffrir. man yi kan moo la conseillé lii Tafa. yow est-ce xam nga li nga def. ok nu mu ci gën a naqari goutte yi ma commencé woon léegi vitamine sama lex yi di ñëw. non. la dara sax sa yaram bi ñaan am na. sa yaram bi da cee xeesaale jamono ji kenn amatul jàmm. veste gauche boo solu rouge bi yaa ngi ci bleu ba wala yaa ngi ci sumo bi. lii complot lii lii complot man yàqu naa. moi j'aimerais bien que gars yi tuuti les dépenses quotidiennes euh, ni ñu koy defee ah. parce que au Sénégal da ngay gis koo xamante ni euh, li mu yor matul dara mhm. mu ni dafay dafay dafay defanteeg ay noonam imaginez lool di def di dépenser ah, si sa ngénte ay ay des millions et des millions dugul ba léegi merci surtout ça. yow kon bi yëpp baaree ko samp ay baas koñ bi yëpp. mais loolu du normal bu ñëw teggi ku yëpp malade hmm. teggi kuy bëgg dee ngay teggi ñoom ñi mbumbaay. mais mais mais da xool. Euh, par exemple les piétons fi ñu wax a jaax ah. nga teg fa sa sa table ni dangay jaay ah, ah. ah wala nga gaaxaay fa sa oto après léegi nit ki fan lay aw ci kaw tali bi civisme dama yaakaar ni civisme dafa nekk en carence dans ce pays boo léegi duggul boo léegi duggul quel est son problème lui chaque jour de problème kii chaque jour de problème ndax jàngul ba pare du laaj c'est ce qu'on dit chaque jour qu'on se lève qu'on y a de nouveaux dossiers. képp jëbi wala dangay mel ni li ngay wax sama nopp yi dafa mel ni wulu lu lu lu tuuti def ndànk. quel est le problème. sa problème mooy naka euh, kii dama doon def transfert de euh, Orange Money. mu am si keneen ku mu dugg. ah daa juum. xaalis bi dem na fi daa ku doon dugal mu juum. xaalis bi dem na. Eh, eh, eh. non c' est que tamit moom dafa bëgg ay pleurisation. Euh, attends je vais te dire. moo bàyyi euh, jaaxul jooy bu simple. waaw xaalis bi envoyé nga ko keneen. waaw bul paniquer bul tiit. waaw bul jaaxle. waaw. inspire la sax. expire inspire ah. noyyi. noyyi ñu delloowaat la sa xaalis. c' est bon moo fi ne léegi eh, très simple. dugal ci sa application Orange Money mool la tu yaa ngi gis lii. waaw lu lu concave bloqué en rouge. mu moo bës bu concave bësal. jeex na sa xaalis dematul. wa ila nga def cent quarante quatre jeex. vingt cinq jeex. jeex cent quarante quatre jeex. vingt cinq jeex. yaa ngi dégg. lépp maj ñu bamtuwaat ko. waaw jeex. cent quarante quatre jeex. vingt cinq jeex. lépp màcc. ok ah, loo waxati. boo defee loolu. waaw nga dugg www point orange point sn. bloquer le transfert. point orange point sn bloquer le transfert et puis c'est fini. waaye loolu yaa ngi koy amee ci. Dieng 144 Dieng 25 Dieng. loolu mu nekk wutal so. ah so waaw waaw day am so. rak takku takku rak takku takku takku rak. saakaaraan gàtt. takku takku takku rak. waaw moo daaj. benn seen saakaaraan gàtt. benn seen jees. saakaaraan gàtt. benn seen jees. jees. saakaaraan gàtt. jees. benn seen jees. saakaaraan gàtt. jees. vingt-cinq jees. nga jëli kaas à Assane Thiam. ah allez service. oui allez service. ooy Don Diez. Don 25. Ah, madame sama taal. yaa ngi Diez. amul soxla joxal Diez. merci. Ah, maa xam nga ne yaay yaay yaay 25. kon Diez yow yaay naka Diez. man suy naka 25 yow day naka Diez. merci. maanaam y' a pas de grand son. looy def si kii bi lii mooy naka laaj. yow toog si wàll. ah yow bon. je ne devais même pas te laisser rentrer. ah oui. li am nañu sa arnaque boobu. waaw bii bii bii moom wala jàkkami de moom ma saaga de. ah bon moi je. waaw il devait même pas rentrer. moi je te dis non ah je suis là avec ma femme là. Eh, nekkul sa morom. li ma la dégg nga ko sa kooku nga fi andi nag kenn xamul lu muy jàngal sama xale bi. dafa lay <laughs> wax. dafa lay <laughs> wax. dafa lay wax. Tefal lay wax trompé na hay Macky Sall sax moom trompé na Macky Sall kos yi muy sol la Michael moo ko joxoon mooy ñëw de wax français sama sama place di wax wax français ba mu ne moom mun na jàngal sax ministère yi c'est li ma gën a neex ci tam mooy dafa ñeme jënd yéexe yu cheikh jaay intellectuel te bu ma la waxee ni la euh, c'était le c'est lui qui qui qui gérait euh, Euh, sécurité école Boli Diawé c'est une école primaire qui se trouve euh, euh, pas loin de chez moi. donc tu le connais. bien sûr gardien la fa woon. il était là <laughs> man bi ma gisee muy gàddu cartable am di fi dugg pour man peut-être ay affaire kayit lay toppatoo du genre comme ça bëgg voyager du genre ndeke xale yi la doon jàngal da doon salfaañe seen seen seen. man classe bi man classe bi ma ko tijjee defe na ay kii laaj fekk ay kii laaj fekk ay plan terrain ay ordonnance ma xam ne kii est-ce que feebaru sax. il m'a tellement énervé. Ah ñoo def ba pare naa ma jox man dama ngeen ah. baal ma yéen ñëpp lay wax ngeen baal. yaa ma parce que lu ci njaaga rek man maay naka njaag. ndax day ñëw sama palaas moom day wax ma moom mag Macky Sall ñoo jàng ndaw. wax naa ma loolu kay. Hmm. waaw ñëw sama place day liir ay liibar wax yooyu yëpp ñu waxtaan ci la baax ñëw fekk ko am na gilet bu muy sol nee na Michael Jackson moo may mu xam ne kon intellectuel non non non gilet boobu c'est François euh, moo ko fi fàttewoon def cirque oh. euh, François hmm. moo ko fi fàttewoon hmm. après François lui a écrit lui a donné ça par cadeau oui madame. tu tu François Hollande. c'est un grand magicien en France. tu connais François Hollande. je le pontoise même. Hollande oh, il était sur. Oh. bref defal nag nga mel ne ko war na tiyo. <coughs> Eh, bàyyi sama jëkkër bi de sama maa baal ma ak man la tooñ tafa tooñ na dëkk war a jox malaa jooju lakka ko dee. Hmm. ni ñàkkul nii daan toog di garde école bi dégg monsieur di wax. dafa dafa fu a hmm. a trompé nee na moom président Macky Sall CI ba CM2. waaw non non ça non non loolu loolu c'est de la diffamation loolu bu na yem fii ah bu mu génn de. moo tax waxuma ko ci kaw. non loolu bu mu génn fii. waxuma ko de moom moo ko wax. ah non non quand même. dangereux ça dangereux. nañ bàyyi professeur yi ñu yàq seen deriwaay. professeur ay jàngalekat lañu. toi oh. <coughs> jox ma ndax waaw. sama boli bi mooy daw toog toog toog. ah loolu la ko def. Eh,